Palestine mu ni talaa talaa moo ko dem bërsëk ak tum seddal xalima ci bindikat bu ne sa xalima soos ko ci daa bind te bindoo si demu si dal xaaji maalik mu ngi bool ni ko sëñ bi

am na lu war sëriñ bi nee na génne si bisimilah. rahmaani rahim ah lu jiitu rek mooy ñu ngi ñaan képp koo xamante ne ronu nga tànt bi wala haut-parleur yi di dal ci sa nopp yal na yàlla defal la leeru yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaye tamit ku toog ba ñu ñaan ba pare yal na yàlla boole ko ci sa téere jëf ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ah, ñuy gërëm ñi nga xamante ne ñëpp teew nañ fi. seen teew yal na nekk faru bàkkaar yal na mën na ko te sañ na ko yal nañu ko suñu borom bi defal moom mi nga xamante ne moo yor lépp moom moom lépp yal na yàlla sàmm dëkk bi yal na yàlla aar dëkk bi ci comme ni ko sëriñ bi waxee rek feebar boobu gane si yal ñu dégg rek di doy ci feebar bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, duñ def rek ñi nga xamante ne ñooy marraines yi ak pare yi euh, jàpp ci bis bi ba bis bi mel nii te wax dëgg yàlla ñooñu du lii moo ñu boole ak ñoom dañoo yàgg yëkkati seen alal di ci def waaye bëggoon nañ ki nga xamante ne mooy suñu doom di doom ci abukaam bi mu yëkkatil ñu uh, baatu suñu borom subhanahu wa taala mu jàngalal ñu alxuraan ñu ubbee jotaay bi incha allah suñu paree ñu teg ci liñ ci teg jox conférencier bi waaye képp koo xamante ni xaar na ba conférencier bi commencé di nga rëccu lutax ya Har, xaar waye alaman bi mom jot nako fay ba pare inshallah joxe nako. ah su ko defee ñu jox modul inshallah mu jangal ñu turu sun borom subhanahu wa taala di alxu فليكرم الذين كفروا بالنار إلا الإنسان ما يعمل كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى إن إلى ربك الرجعى ألا الله وسلم أرأيت إن كان على الهدى أو بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله خير كلا وإن يأتين نفسا بالناصية ناصية كاذبة عالية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب صدق الله العظيم أحمد بن الله kon fa tabarakallahu euh, ñu ci jiitu ci cant yi dañuy sant ki nga xamante ne mooy suñu sëriñ di sëriñ Alioune Sall euh, mbaaxam waaye lewetam ak yëg taalibe ñu bokk dégloo ñu gërëm ki nga xamante ne mooy sëriñ Alioune Sall nga xamante ne moom mbaaxam ak bëgg taal ak nawloo ay taalibeem ak tamit loxoom du jóg ci ay taalibeem ndax li ñu mujj fàttaliku rek dañuy waxoon benn 31 décembre kenn ku nekk xam na ni 31 décembre xale yi moom moom boppam fu ko neex lay takk waaye moom mu xalaatal ñu lu tax mënuñoo organiser dara ci 31 bi pour mën a téye daayira bi waaye moo njëkk làmb poosam yëkkati 200000 ne am leen ngeen commencé ah sëriñ yooyu bu bëree it néew na ci suñu gox bi kon ñu koy ñaanal yal na yàlla sàmm ko lépp lu Cheikh Seydil Hadj di séddale ci njaboot gi yàlla bu ko si kenn ëppale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sëriñ bu baax ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam kon ñuy nuyu tamit suñu yaay soxna Seynab Cissé moom mi nga xamante ne tey ñun saa yi ñu demee jàmmalaay mosuñoo dem jàmbalaay ñëwaat reer ndax yàlla jëmmum ji kër ga danaa ko wax nag ndax kër gi yàlla def na ñaari waañ yu mag a mag la fa tabax barki démb moo mujjee bi ñu ñëwee dañoo yëgal suñu bopp ci kaw frigo bi ñu ñëw dindi laax yi nekkoon foofu yëpp maag amaat ñu xéwaloo ko loolu day wane ni ngeen denc ko def ko ci seen kees léegi wax leen ma lan ak lan lan ngeen soxla ñu ne ko ñun loolu rëy na si ñun waaye mu ne ñu dinaa leen may nag duma ci yem ndugg bi ñaata ngeen di def ñu ne ko ah rus nañ koo wax mu ne naa leen nduggal oto yi ñaata oto ñooy doy ñu ne ko ah loolu baax na li des bàyyil ñu fas jom mottali ko mu ne loolu wax leen ma ko wala ma jël benn somu xaalis teg ko ci table bi te at bu jot la bi daayira bi sosoog léegi kooku muy Moustapha Balde daayira bi xam nañ ko miin nañ ko te en plus bokkul ak loolu muy def waaye fu mu xamee kilifa dina woo kilifa googu ne ko jàppaleel waa daayira bi léegi nag day des ci kilifa gi incha allah mu yónnee wala mu nekk ci ay xat-xat waaye barki démboo Ndiaye bi ñuy programme lii ñu ne ko duñ la bindal benn soutien yow la ñuy def invitation d'honneur mu ne ma incha mu ne ñu incha allah dama bëgg yóbbu leen ci kër bi Bibi Balde te noonu la ko defee jëlee ñu fi fayal ñu taxi yóbbu ñu ba ministre bi toog ñu toog yàlla mooy dogal waaye bi mu ñëwee léegi léegi indaale enveloppe boo xam te ne bañ koy yóbbu ci taabal bi dañ koo jàppoo yàlla na yàlla fay ko. ci ànd ak moom gunge si ko moom itamit muy ku bëgg Serigne Babacar Sy Serigne kër si mun nga ko ci nax lekk alalam ba mu jeex waaye ñu ngi ñaan moom ak ñi mu àndal yépp yal na yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla làq leen fu yàq yeggul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye euh, du ñu fàtte suñu jigéen boo xamante ne moom itamit ay estatem muy ajjuma lundi ba ajjuma lépp ay estatem Serigne kër si lay doon këram boo duggee alaaji Abdou ngay jàkkaar lool muy mam Yacine madam ture muy jigéen joo xamante ne moom tamit ku bëgg Serigne Babacar Sy la moom tamit bis bi ñëw na te yónnee na lu jiitu muy ñëw yal na yàlla fay ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, su ko defee tamit ñu mën a dem ci ñi nga xamante ne ñooy góor ñi ak ñu ngi gërëm tamit ki nga xamante ne mooy assu madame la maire euh, Idrissa Diallo délégation xam naa ñu ngi ci yoon bi moom tamit ñu leen di xaarandi. incha allahu rabbi bu ñu ñëwee ñu gën a yaatal foofu su ko defee ñu delluwaat ci ñi nga xamante ni ñooy góor ñi rek comme ni ñu defee parité bi incha allah waaye du ñu fàtte ki nga xamante ni mooy suñu xarit suñu mag di Abu Thiam woo na soxnaam jox ko xaalis bu bëri ne ko mbenn kaay ma yónni la ci xale yi wax dëgg yàlla dafa am fu mu dem moo tax teewul waaye yónni na soxnaam di mbenn géey mbenn géey ñëw fi indaale teraanga yu bëri ñu koy ñaan yal na yàlla fay ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ne di Basir loo di doom ci aale Lo moom tamit xam naa léegi mu yegsi mu ngi ci jotaay bi euh, wala yegsi na ba pare sax mu ngi ci jotaay bi ñu ngi ñaan moom it yal na yàlla sàmm ko yàlla aar ko ci barke yonent bi yaa Sow woonde na ne na ko daayira bi ñëw fekk këram daayira bi ñëw fekk ko këram mu yëkkati teraanga bu baree bari jox ko daayira bi te lu jiitu lu jiitu lu jiitu bis bi tey kon yal na yàlla. kon moom itamit yal na yàlla fay ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ki ci topp di suñu mag suñu xarit ay ca kon waa délégation mairie bu Dalifort ñooy doog a yegg noonu ñi nga waa daayira bi ñi jiitoo kanam ci ndigalu sëriñ bi rek ñu dellu ca basaang ya gestion mairie bi ñoo doon yegsi noonu euh, ki jiite jotaay bi di madame la maire euh, Ndeye Dramé ànd ak euh, madame la maire Astou Touré Astou Traoré du moins ñu di leen ñaanal ñoom tamit yal na yàlla sàmm leen ndax fu ñu yëkkatee lii ànd ak suñu mag suñu xarit di Abdoulaye Diallo yar ñu xamal ñu lu bëri ci àdduna ñuy ñaan yal na yàlla sàmm leen yàlla aar leen ànd ak suñu xarit koo xamante ne daayira bi ci lu mu yëngu mu dugal ci loxoom di soxna Adja si nga xam ne ci lu daayira bi yëngu dana ci dugal loxoom ci mu ñëw wala mu bañ a ñëw ñu koy gërëm bu baax moom soxna Adja si ak délégation bi mu àndal asu ñu li leen wax dal leen ak jàmm yal na yàlla kàttan la leen yàlla sàmm leen ci barke yonent bi Ndeye Dramé jërë ngeen jëf madame la maire kon merci yéen waa maire bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci teewaay bi ngeen def yal na yàlla fay leen euh, bu ñu jógee foofu dañuy ñu gërëm ki nga xamante ne mooy colonel euh, Ibrahima ci am wax dëgg yàlla moom itamit yónni na fi soxnaam ak euh, rakku soxnaam yëpp ñu ñëw indi fi teraanga yu bëree bari ñuy ñaan yal na yàlla fay leen loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sànq gërëmoon nañ nañ suñu maire waaye ñu ngi dellu di ko gërëmaat muy Idrissa Diallo di ko gërëm ci kanamu soxnaam mu yeggee loolu incha allahu rabbi waaye ñu ngi gërëm bu baax ki nga xam te ne mooy Sirajo Agne euh, di kenn responsable politique la nekk fii ci Maris incha allah kon ñu ngi gërëm tamit Aziz Diallo Aziz Diallo ndaw la lu dëkk fii si Dalifort waaye bi ñu commencé ba léegi mu ngi yëkkati teraangam di ko ci def yal na yàlla fay ko yiw su ko defee dañuy gërëm tamit ki nga xamante ni mooy bàyyi Diop responsable politique la nekk fii ci Dalifort moom tamit jotoon na yónnee ay teraanga yal na yàlla fay ko yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon su ko defee dañuy woo ki nga xamante ne mooy abubu kam bi mu jege si mu gërëm ñi nga xamante ne ñooy section bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo bokk tënku ci Serigne Alioune Sall moom soxna Safiatou si moom Cheikh Seydi Ahmed si moom Cheikh Seydi El Hadj Malick moo section yi mu tënk ëpp lu tolloog quinze section dañuy woo Abou Diop bi nga xamante ne mooy président daayira mu taxa bina fillaahi bu Dalifor mu gërëmal ñu ñooñu su ko defee liñ ciy tegaat du bëri ah, jox oustaz bi oustaz bi li ma leen wax la rek ku fi ñëw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 feeñal sunu kontante ci bis bi ñu ngi feeñalaat sunu kontante ci bis bi waaye fi may njëkkee rek mooy ñi nga xam ni mooy daayira yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Dalifort ñoom ñëpp ñu àndandoo nekkat ñun ñëpp dañoo war a booloo ku xewle ñëpp fekk si la ñëw jàppandoog yow liggéey bi ah bàyyiwuñ dara depuis bi mbir yi commencé ba léegi réunion lépp ñoo ko ànd ak ak ñun pour lim daayra yi dina xam gudd douze daayra ñoo daje mu nekk jamiya maam Seydi Hadji Malick waaye macha allah lii ngeen gis fii yëpp démb am na ñoo xam ni ñun ak ñoom a fi nekk te bokk ñoom ñoom jàpp ci réunion yi yëpp dañuy ñëw toog ak ñun bàyyiwuñ dara démb bi ñuy tànt ñoo ànd ak ñoom dem jëli bâche yi def lépp ñun ak ñoom ñoo ngi ñaan bépp daayira bi nga xam ne mu ngi fii dañu lay ñaan yàlla defal la tay taysir yàlla defar la mbég tée sa daayra sàmmal la ko ba li nga xam ne moom lañ bëgg ci jamee bi yàlla defal ñu lu kawe suñu njort bi jaay muhammad sallallahu alayhi wa bëgguma guddal ma dellu di wax ci daayra mutahabina fillaahi bi nga xam ni ah sunu wasila di sunu sëriñ sëriñ Alioune Sall di responsable bi waaye day lii buñ ko ñemee taxawal ah ñu ngi ciy sant nag sunu sëriñ di sëriñ Alioune Sall dañ ne wala boog doom bu defee dara ba ñëpp rafet ko naan ko waaw góor moom dafay xool bàyyam ne ko waaw góor waaye seen bu baax a baax lépp section bi nga xamee mu ngi jokk ci jàmmalaay di wax ni section yi bari nañu bari macha allah kenn natable wu ko ndax fële nga xam ne mooy ca jàmmalaay mu fay woote tabarfakallaahu képp ki nga xam ne yaa ngi jóge Dalifort di fa dem yaa ngi gis sëriñ bi jéego yi muy def waaye nag leen rek la ñuy wax mooy dañ koy sant di ko gërëm ndax sëriñ boo xam ne doo ñukki jox ko moom mooy ñukki di la jox xaarul dara si ñun xaarul dara si ñun fu ñu gis rek li muy njëkk wax ak ñun mooy nan ngeen toppatooyee seeni way loolu mooy teg nañu si yoon mënuma foofu mais ñu ngi koy ñaanal Serigne Abdou Sall yal na ko yàlla mission bi nga xam moom la yor muy mission maamam mu koy doxal doxal bu rafet képp ki nga xamee yaa ngi jokk ci section am kenn du la gis di la xeet wala kenn du la gis di la yéene sarax kenn du la gis di la teg leneen leneen leneen ku la gis da lay naw muy góor muy jigéen kon nag bépp section bi nga xamee ñu ngi ci gox goxaan yeeg ñëpp jokk ci Serigne Alioune sàll muy daare mu taxabina fillaahi ñoo ngi leen di siyaar di leen bëggee di wax ni it ci moom moo tax sécurité bi nga xam ne nekk ba géejawaay mu ngi nii ñëw ànd koog ñun yor lépp ñoom ñi ci ci comité bi lañ nekk di doxal lépp li nga xam ne mooy am ci euh, comité daayira mu taxabi na kon nag di wax ne rek foofu la ñuy wàccee sunu kàddu ndax yëf yi guddi na ba noppi te bëggu ñëw téye taa bi kon nag Serigne ñoo ngi lay ne jaajëf jaajëf yal na la yàlla ci yow bu baax àndal yépp ah Abdou wax rek la waaje waxoon nee na sëriñ bi kontaan naa bu rey nit daganoon ma tëral séeréer lépp kon daal mu ngi noonu mag ñi loolu lañ fi tabaxoon mag ñi dañ fee tabaxoon kal gu neex waaye léegi ndaw ñi yàq nañ kal googu mag ñi tawoon fi diggante séeréer ak joola tukulóor ak kii mag ñi ranger ko ba mu rafet teg fi léegi nag ndaw ñi jël ko sànni fële def ko kalo tarixa te tarixa ci xol la jëm yal na yàlla sàmmi ñu kon sëriñ bi waaw mbooloo mi sëriñ Aliou Sall allah allah leen bu baax gërëm na leen yal na yàlla dëgëral seen taxawaay amin nee dégg ngeen seen responsable bii ni mu waxee ñoom nee ñoo ngi gërëm seen yaay yi nekkal fii seen baay yi fi nekk ak seen marraine yi ak seen parrain yi ñoom ñëpp ak seen mairie bi ak seen i jigéen bopp suñu jigéenu bopp moom tamit ne ci suñu lépp aussi di député Awa Niang ndaxte nag mosuñoo def dara te boolewuñ ko si ak meran yi fi nekk ñëpp ñëpp ñëpp nag ne mi ngi fàttaliku bu baax nag suñu imam imam Cheikh Agne nekkoon imam ratib bu Dalifort ne fa mu nekk yàlla na koy gënal fii mu jóge ne di gërëm tamit sunu kilifa yi nekk fii yëpp sunu mbokki murit yi teew é nanu Adja Mbëgge ak délégation daayira Soprim teew é nanu ñoom Amidou Wele ne mi ngi sant nag tey gërëm ne foofu sax la waroon a jëkki

ne boo reyee day mel ni ne mu ngi nuyu nag soxnaam soxna Zeynabu Siise nday ne tey de soxna Zeynabu moo ko njëkk pare moom mii sëriñ bi ndax nag fonk gi mu fonk Dalifoor gi ne mii gërëm الحاج امام امام عمر سار الحاج علين ني الحاج علين جان بو بري ليغي استاذ سار دا ديف تينتيز بي ناغي اندنا اك اي كلف ني سرين بي ني ميغي اندك اك اي كلف يو تيد يو ماغ بير جاملاي شيخ مبوب الحاج شيخ مبوب الحاجم مانيك جان الحاج جبرين جاي الحاج محمد لمن دافق الحاج الفن جاي اك ديليغاسيون خالي ييب نيانغي في تيو سي بيس بي تاي ني تاي نك دا خيو خيو يبري ام سي نوكو يو ne looloo tax ñu bëri bëggoon nañu ñëw teew fii waaye looloo tax ñu des foofu ngir jëmbal fa daayir bi waaye nag ne mi ngi gërëm bu baax waa daayira bi waa mutahabina fillahi dale foofu ne éducation mu yar bi nga xam ne waxoon na leen ko ci magu dale yi ci jàkk yi ci yëngatu yëngatu yi yéen gis naa ni yéen a ngi koy doxal bu baax a baax nee sëriñ bi nee na na ngeen continuer ci liggéey boobu bu leen ko bàyyi mukk ne loolu tax mu boole leen El Hadji Xaali Njaay ne daf koo gëj a dégg loolu tax mu xaw a fàtte turam El Hadji Xaali Njaay sëriñ bi ne mi ngi lay gërëm bu baax a baax ne ak Pape Diagne ak ñi mu àndal ñëpp ne Abdourahmane ne yaa ngi dali foor yéen a ngi dali foor ci daaira mutahabbiina fillahi ne daaira bi xale yu am taxawaay lañu ñu am pas-pas lañu ne waxu leen sax ni yow da ngay ñëw waaye nag benn confirmation rek temps yi yëpp ñoo ngi dégg ñu ni mën naa am ziar général ak ak yenn xew-xewu diine yi ndax dañ koy annulé ndax xew-xewu jàngoro bi ne moom mii bu jëlee kàddu na ci wax lu leer dina leen apporter nouvelle bi jóge Tiwaawoon ne wax nañ ko

kon nag ne moom mi sëñ Aliou nee na moo gën a yàkkamti conférence bi conférencier bi jël micro bi ndax da ko namoon nag na nangeen fexe ba nga xam ni bu commencé daal xaw leen koo sori <laughs> sëñ Aliou ne sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu

ne bi yoon sax. pour ñëw jàmbat pour ñëw fii. pour ñëw fii. jaar na fu nekk. ne jaar na fu nekk. pour ñu may pour ñu may ko autorisation mu pour ñu may ko mu mën a ñëw fii. kon nag sëriñ bi ne sëñ Aliou ñoo lay gërëm bu baax di la sant. teel nga ñëw sax. ne teel naa ñëw sax. ndax yëg naa fi nga nekkoon yëpp. ndax yëg naa fi nga jaar yëpp. ndax dem ba tey mi ngi lay suivre foo toll kon nag sëriñ bi ne mi ngi gërëm ñëpp ne suñu jigéen ñi nga xam ni waa daa daayira bi ñoom lañu mareneel bis bi ak góor ñi sëñ bi ne yëg na lépp ne taxawaay bi rafet na yàlla na la yàlleen taxaw amin ak daa uh, daayira Seydi Jamil te Daouda Diaw mi jiite ko mi ngi ni tew mi ngi fi encore une fois sama jigenu bop aja awanyang encouragement total la route est balisée yalla na taxawul amin ci barke sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jerejeuf abdourahman doon waxtaane jëmme ko ci xadara bi ndax moom sama sëriñ la waaye sama conseiller lu bari laata ñu see dugg fii ci ndakaaru ak ca tuyaawa dama koy woo mu jox ma xalaatam te ku naw xalaatam la ndax boo ko dégloo rek dangay am fit yaa nga doon ragal def sax boo ko dégloo daf lay réorienté waat ci communication ñuy waxtaan nag ci semaine ba la ñu génn ci ay xew-xew yu xew ci xadara bi fii ci Cap Vert ñu doon waxtaan nag ba àgg ci ziar général mu am information bu ma si jox ma dégg ko doxal ko ci biir commission bi yàlla defal ma ci ndam mu ne ma tey am nañu daje bu ñuy am fii ci Dalifort ma ne ko incha allahu danaa ci teew danaa ànd ak ñeen net ci biir fédération Dakar ñu ñëw kuróoral leen bés bi moo tax am na délégation yu ñu àndal ci góor ak ci jigéen ñëw mottali suñu yéene ñëw nañ fi teewal fi nag daairatul kiram mi nga xam ne tey mooy umul dawair sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu sos ko en 1927 fii ci boulevard de la république kër Ibra Ndiaye Diop teewal nañu fi fédération Dakar et banlieue Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy joxe ci ndigal en 1960 mag ñi doon ci joyal seen tarbiya ci ëttu al Hadji Malik ci ëttu Cheikh Seydi Bakar si radiyallahu taala anhuma teewal nañ fit commission dairatul kiram mi nga xam ni gàmmu gi nga xam ni mooy gàmmu Cheikh Seydi Bakar si radiyallahu anhu ba may amal ca Ndar sos ko en 1954 tey yooyu instance yëpp mag ñi laata ñoo dem dañoo seet ndaw bu dese kàttan ñu teg ko ci loxoom te yooyu yëpp nag yàlla dogal na ci jamono ji ñoo koy superviser teewal nañ fiir jeunesse Tijane Malick it mi nga xam ni sëriñ Abdoul Aziz Al Amin moo doon joxoon ñoom ndigal sëriñ Alioune ñu fekkoon ko ca buleel waxtaan ceeg moom ñu doxal ko ñoom it seet ndaw bu am kàttan ñu daal di koy jiital nekk ca gannaaw mu ëmb nag képp koo xam ni ci xadara Seydil Hadji Malick nga nekk kon yooyu yëpp tey bu ñu fi teewee ñooñu lañu fi teewal teewal nañ fit koskaas ndax ca bureau national ba lañu bokk ca structure décentralisée yi ca la bokk ca ñay tëral burdu populaire it ca la bokk kon tey sunu jataay bi loolu lañu fi teewee ndax fonk ko moom waaye it fonk Dalifort ah, li muy wax rek mooy ñu ngi dëkkmal bés boo xam ni taalibe yee ko ñaanoon daayira yee ko ñaanoon Cheikh Seydi Aboubacar Sy muy ziar général ziar général bi sëñ kër si créé daayatul kiram en 1927 1928 ba 1929 mag ñi dañu doon jóge fii ajjuma ju jot doon ko fekk ca Tivaouane muy waxtaan ak ñoom ajjuma ak samedi ak dimanche ba dimanche si ngoon mag ñi jëlaat saxaar ñëw Ndakaaru sëñ Abdou nee na seen reer ak seeni ndékki moo ko doon jële ji sa gaar ba ñëw andil leen nee na bu Cheikh Seydi Aboubacar si doon wax ak ñoom ñoom daanañu woon xam lu muy wax ak moom ndax siyaasa daaira sëñ Babacar see ko xam nee na bokk na ci doon bu doon waxal daaira moom sëñ Babacar day seet mag ñi nga xam ne xamuñu siyaasa daaira ku nekk mu am dog bu mu la jox pour nga occupé ñii mu jox leen lim ci latif ñii ci basmala ñii ci alxuraan ku nekk mu occupé la ba ñooñ ñëpp ñu dem seen occupation góor gi doog a recevoir waa daayatul kiram pour wax ak ñoom siyaasa bu jóge as asamaan ci ndigalu Seydil Hadji Malick ba mu rombee nag ñetti at ca la mag ña ñëw ñaan ko bés ne ko dañoo bëgg ñu njaboot gépp at bu jot ñu am bés bu nga xamante ni dañuy ñëw di yeesal suñu pas-pas suñu digganteeg yow ak suñu digganteel Seydil Hadji Malick ak njabootam danañu ñëw renouveler suñu engagement suñu digganteeg yow ak suñu diggante Seydil Hadji Malick ak njabootam góor gi nangul leen ko en 1930 mag ñi doon fi jóge fii di jël saxaar di ko fa fekk bareen yàlla dogal ñu ngi ci quatre-vingt-onzième édition dafa naa ne bu woo nekkul woon mbirum yàlla

ndax ñoom ñëpp yàllaa leen njaboote virus yeeg kay julleeg kay fecc sabarak kay màndeeg ka gëmul sax yàlla gëmul yonent bi ñoom ñëpp yàlla moo leen njabootee te ku nekk nag lañ la lañ la tax ñu bind la ca ngay ne coronavirus dafa ñëw di dox mission yow it ngay dox sa mission te yéen ñaar ñëpp yàlla moo leen di seede ëllëg moo tax bu mu agsee ci mission comité bi nga xam ni moom mooy saytu ziar général ma jiite ko ba ñu waxtaanee dañu ne ziar général kenn du ko dàq te kenn mënu ko dàq ndax am na yu ko jiitu woon waaye mag ñi jëfandikoo nañu seeni ñaan nit ñi jëfandikoo seeni pas-pas ba loolu romb ba sa njëkk mooy gàmmu Tiwaawan en 1968 grève amoon na fi président bi fi nekkoon di Senghor daal wax ni gàmmu gi dañu koy repousser bàyyi ko cette année ndax amuñu service d'ordre bu mën a couvrir gàmmu Tiwaawan boobu maam Abdou Aziz a fi ne bañ ko ko waxee nag mun a wax leen ko cheikh sëriñ cheikh dal di dem gouverneur ne ko gàmmu Tiwaawan ren dañu koy reporté ndax couvre-feu am na étudians yi chemi waa chemin de fer yi ku nekk ngi grève du ñu am nag luy am sécurité wu gàmmu gi tey Serigne Cheikh ne ko gàmmu Tiwaawan day buñ ko bàyyee leeru yonent bi fay ci Tiwaawan fay ci àdduna bi ndax ki ko sos moo tax mu Seydil Hadji Malick mu ne ko buñ ko buñ ko amalul ren drapeau de l'AEF loolu boobu AEF moo amoon mag ñi xam nañ ko drapeau France dootul flotter dans l'AEF ndax France li ko garanti Sénégal la ne boobu histoire bu gudd la gouverneur nag na ko kon jox nañ leen autorisation loolu bu fekkul woon taxawaay ñu am ndax événement buy dox mission kon histoire da koy bind Cheikh Seydi Aboubacar Sy fii la nekk ci boulevard de la République en 1944 ñu war a bombarder Ndakaaru ñu envoyé mission ci moom na ko comme que moom bakkanam dafa cher foog mu génn Ndakaaru mu waxtaan nag ña war a waxtaanal ñu ne ah góor gi day bu génnee ndakaaru histoire dana ko binde yii dañ koy jox rek sëñ Alioune mu yóbbaale histoire dana ko bind kon histoire dana bind ne sëñ Babacar dafa dawoon ndax jamono ngi nii ñuy nettali histoire boobu ba léegi mu ne kon ko dogal avion yi la yilif da ngeen di bàyyi ma wax ak ki yilif dogal yàlla dogal mu nek fi ci zawiya Seydil Hadji malik ba événement ba romb yàggul noonu ñun fekke nañ ko li ñuy tuddé choléra xewon na jagañ gamu Tiwaawan nit ñi doon wax naan woru la choléra bi day walé dañu ab dina mukk mission am lay dox ñuy dox suñu mission ñu santane lañuy santane talibé yi am pass pass gamu nga ana mu tay ah bi mujj mooy Ebola yooyu yëpp lii yëpp dañ ko waxtaane ci réunion bi mujj mooy Ebola Ebola xewoon na fi di yàq dayantee gàmmu Tiwaawan ak gàmmu Ndar ñu ne nay am yëpp borom pas-pas yu pas am pas-pas gëm seen foi ak njiit yu dëggu ñu taxaw ba événement yooyu romb kon ñi jiitu bàmmeel du ñu jiitu ñun ñu dese ñun dara di xew lu ko mu tuddati coronavirus mu jaral ñu ñuy dàq suñu ay événement ndax mission lay dox ñuy dox mission le Serigne Cheikh nee na al ñeenti matière al anasirul arba amuñu sañ-sañu def am ñu sañ-sañu dindi lu dul dañoo laaj sëñ Babacar si ndax nitu yàlla yi yàlla day jël al anasirul arba dénk leen muy ngelaw suuf safara ak ndox ak li seen dérivé kon boo nekkee pas-pas boo nekkee talibé bu am pas-pas yooyu du la du la ébranlé moo tax ñun ñëpp nañ ko waaj bésu talibé yi la kilifa yaa ngi ñuy xaar lañ ko ni yëpp ñu ngi ko doon def nañ ko continuer def buñ ko yokul buñ ko wañ loolu la dayatul kiram wax loolu la dayatul ahmadiyya wax loolu la fédération ahmadiyya wax loolu la structure yi nekk ci biir xadara bi yépp wax que ni dimanche incha allah ñun ñëpp danañu dem taxaw ci ginnaaw ci kanamu xalifa bi ak sëñ pam malik mission yañ ñu doon jox ak recommandation yañ ñu doon jox ñu dem dégluwaat ko ñu jox ñu ko delloowaat su te dara du fa xew ñoom garanti nañ ko yàlla na ko yàlla dogal yàlla na yàlla may ñu ñu fii ñëw ay at yu bari li ci des rek mooy ñu continuer ñaan yi continuer ñaan yi ñaan yi Serigne nee na ku nekk ak mag bu nekk ak lañ la jox Hitler ba muy dem bomb lañ ko jox mu bàyyi ko fi Staline ba muy dem bomb lañ ko jox mu bàyyi ko fi yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem ñaan lañu ko jox mu bàyyi ko fi adduwaawu silaakul moomin Sëriñ Babacar nee na bu leen ko xeep dee leen ko soow guddi ak bëccëg waaw nañ ko ci boole rek ak indication yi nga xamante ni ministère de la santé joxe na ko ñu boole ko ci waaye ñu xam ni daal ay missionnaire lañu virus ak dee ak taw ak luy xew ci àdduna bi ku nekk njabootu suñu borom nga te ku nekk da nga am mission booy dox kon yow ñit da nga am pas-pas ba ñooñu ñu bañ la teree dox sa mission ndax yéen ñëpp ci kanamu yàlla ngeen di teewe salaamullahi aleykum wa rahmatullahi taala ñu xewle lu mel nii waaw saa ñuy xewle lu mel nii mu yëkkati alalam boole ci déplacement am ñëw di suñu papa Cheikh Landing Sané nga xam ne moom tamit programme yu mel nii da koy def at bu jot saa yu jotee ñu dem fekk ko ci même alignement bi la rek ñu fekk ko fa moom tamit yal na yàlla fay ko waaye ñuy gërëm tamit ndey màgget ak waa kër Cheikh Issa yenn yal na yàlla fay leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen teewaay rafet na rafetal ngeen tànt waaye nag bu ñëpp di déglu kenn wax ci kanamu ñooñee day doon wax rek kon duñ def lu dul euh, présenter oustaz Alioune Diagne ñaari jëmm yoo xamante ni. at bi yëpp ñooy nekk ak ñun muy oustaz Xaali Njaay mii ak oustaz ak wéykat bee di Pape Massamba Diagne euh, muy taw wala muy naaj dañuy ñëw incha allah ànd koog ñun ñuy ñaan li olof di wax rek feccub liir bu neexee ndey jaatee ca mbagg ja te ñoom ñaar ñi sëriñ bi leen woo jox leen mission pour ñu ñëw te mission bi ñu koy matal ñuy ñaan yal na yàlla fay leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, li ngeen di wut ci tarixa bi ak ci kër gi yàlla bu leen ci kenn ëppale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku taaloon sa connexion ñu lay ñaan nga fay sa connexion wala bu commencé sax yow yaay fayal sa bopp sa connexion kër yi ma karima qawmin fa akrimuhu nit bu ko yàlla ba mu koy teral fekkee woo ko bu dugg ci si seen biir delloo ko leen ko teraanga gi ndax cër sëñ Babacar maa ngi lay nuyu bu baax seen sama soppe wéykat yi siyaar naa leen ma ne oustaz bi joxe na exemple dafa toog fii ñu ne waa mairie bay ñëw sëriñ bi ne daay leen la mu jóg toogi fële xam nga loolu mooy lan xay sunu sahaaba tey nag damay laaj ñetti question ci yonent bi laay waxtaan wala ci jikko laay waxtaan wala ci ma laal fu ne kon ñu commencé ci borom barakaale wa kullan naqusu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak yàlla ne yonent bi yonent yi fi jaaroon te fekkee woo seen jamono dundoog ñoom dinaa la indil histoire kenn par kenn lu tax pour ce que nga mën a jàngee ci ñoom dalal sa xel bu méttee nga xam fi ngay teg sa tànk kon yow mi may dégg waxtaan wane wuñu sëriñ Babacar pour wax ne moom rek kay sëriñ waxuñu ne sëriñ Babacar si rek a mat kenn matul waaye nag li ñu yàlla may muy sunu cër di sëriñ Babacar si danañ ko tiitaroo wamal maalu wal ahluuna illa wadaa'iun wala budda yawman an tarudda al yëguloo ne li nit gën a bëgg la yàlla gën a tële doomu aadama li mu gën a bëgg yàlla moom nee na lànk na du ko def dooma laaj lu nit bëgg ku ko may yàlla nee na moom du maye mu ma rek ku yàlla mos a may yàlla nee na li nit gën a bëgg mooy am ma may la man yàlla mayee xewul ci man ñu ne yàlla lu xew ci yow mu ne able te Alioune Diagne bu la abalee kurusam wala portable am bu ko soxlaa da koy nangu yàlla bu la abalee ngay tiitaru bu ko soxlaa yaw mi mu abal lay nangu nga dem tëdd fale mu seet ku mu ko jox moo tax lu mu la abal jarul cëppi-cëppi loolu la Serigne Babacar Sy njëkk a dégg ba yàlla may ko laqad tarabba fii xisni waalidihi yàlla def Seydi Hadji Malick moo ko toqantalal boppam am na ko waxoon ci réew mi ne maam Alaaji Malick Sy radiyallahu taala amul école mané ne ak wax deug yeug nga ni si ajmaali amul école ah xam nga lo am ay école ak wax deug madaarisuhu fil ilmi khayru madarisi ay la am dafa dafay deugal ta xamul ne day deugal bari na boy tuutar nit ta fekk dang koy réyal te yëguloo dafa doy rek tiitar ci aduna bo legge yowal qiyam si aj Malik daagu sëñ Babacar si daagu mu ne yàlla bolé mako jur góor yàlla bee maa ko jàngal góor yàlla bee maa ko tarbiya ñu ne Cheikh Seydi Aboubacar Sy El Hadji Malick moo ko toqantalal boppam ku sëñ Babacar Sy bokkal jamono moo la gën a yaru yàlla bu kenn wéy yàlla def ci moom xam-xam yàlla def ci moom wilaaya waaye def ci moom li ñuy tuddee alwaqaaru wa sakinatu mu nekkoon nit ku dal nekkoon nit ku am personnalité ba ko ko xool sopp dañoo wax Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ne ko ki lay don ci jamono numi mel mu ne xolal baba Sy boko xolal xoolee man na ma don ñenti qualité lay am benn bu ci manqué ma don al khawf bil jalil wal amal bit tanzil wal rida bil qalil wal istidad min yawmi rahili Seydina Cheikh neena ki may don day melni cheikh sayyid abou bakkar Sy borom bonekaara bi khawf bil jalil da fay ragal yàlla ba boko xolé xoolee ki borom cër la maam alaaji Malick moo wax ne duma doomu yàlla man na Malick du duma jarbaatu yàlla na alaaji Malick yàlla yónniwu ma waaye góor-góor naa ba ku ma xool xam ne yàlla am na ku ma xool rek xam ne yàlla am na man Babacar man alaaji Malick si mu toqantal ci Cheikh Seydou Aboubacar yàlla def ci moom alxawfu bil jalili ñu ne cheikh bi ci topp ba na mu ne wala amadu bi tanzili ci may doon dëgg li muy def du génn sharia moo tax suñ Babacar daan wax ne masalaam sharia ak masalaam xaqiqa Babacar si du ko jaawale alxawfu bil jalili moo may sëñ Babacar si yàlla boole kook soxna ba yàlla weddi diggante ba soxna sa ñibbi këram toog ay at nam mu seexul xalifa na dama koy siyaara ji ñëw ñu ne sëñ Babacar si soxna sa la yàlla mayoon moo la bëgg a siyaar mu ne lislaam mayatuma ma jàkkaarloog moom waaye ngor mayuma ma tere ko sama bopp na may def ne leen ko mu ñëw dëkk guddi la Tiwaawan amul courant benn groupe moo fa am groupe baa ngi kër sëñ Babacar soxna si yéeg escalier yi ba teg tànkam groupe bana kamaj ku ànd ak yàlla inna lillahi qawmun isa arado aradallahu yàlla nee na am naa góor yoo xam ne lu bëgg ma fekk leen ci si dugg ci saal bi baatu sëñ Babacar si lay dégg nuyoo moom ba jàmm sante ak moom mu jox alaaji kurdi gay li jox ne ko gunge ko soxna si ne cëpp groupe ba ne ka rek tàkkaat te kenn laalu ko koo dafa ànd ak yàlla yàlla sa ñangal sama sëriñ ñu bopp sëriñ baaba si Abdoul Aziz laa ko laaj na ko kan mooy sa sëriñ mu ne sa kan mooy sa turandoo Cheikh Seydou Aboubacar si jërëjëf mu ne sëriñ Babacar si jërëjëf yaay booy kaana marjaan ilahiyan defoon ci moom kuy wut yàlla bokk ak moom jamono jërëjëf boo demee ci moom fekk fa lu doy sëkk sa delluwaay la woon ci yàlla sëñ Babacar si boo ko jubloo sa xel di doj xaalis boo amee daraja da nga koy fàtte boo amee wilaaya da nga koy fàtte boo amee juddu bu rafet danga koy fàtte boo amee ay tabax danga koy fàtt boo amee ay oto da koy fàtt bu la nguur falee da koy fàtt boo ne jàkk ci moom sa xel dem ci yàlla ndax léppam yàlla la jërëjëf yàlla na sa sa yaay yàgg ñëw sa yaay moom aljana lay dem moom ak yow mi ko toppandoo ak kii yéen moom wóor na ma ñi ci des na xaw ma ci yéen dara alaamalu bi tanzili muy benn nga góor góorlu jërëjëf député bi yàlla na nga ko yàgg doon ay député buy yàgg foto su rek yow de doo wàcc boo moytu ministre nga jëm de laay maa la ko wax jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fekk gis nga nit jigéen ñi ma ne góor ñi li rek a tax ma allergie góor ñi ban leen ma moytu rek yal na ma yàlla musal ci góor ñi yéen a ma ko teg est-ce que rek من لسيغ القلف ولا والعمل بالتنزيل مي نار خنا القوف بالجليل والعمل بالتنزيل أكبر من وريدا بالقليل تير بي الله ديف سي موم داكاي توي لودول تيرو ادنا دو سي تك بوتام لوي تيرو ادنا دي ليكو يالله ماي موي ولايه اك خم خم نيت ني ديكاي خيب موم لا تيي سي لخوم با ديفار سي ادنا موم شيخ سيدو بكر bi ci ban la mu ne wal istixdaadu min yow mi raxiili guur yàlla guur ki nga xam ne moo may doon man Cheikh Tidiane day mel ni Cheikh Seydou Abubakar ba bis boo ko xoolee mu fàttaloo la àdduna ba da yaakaar ne boo yendoo doo fanaan boo fanaanee doo yendu ngir nim la yóbboo nga jege sa borom ma wax na jigéen ñi góorlu leen sunu maam alaaji Malick si jërëjëf yaay booy dafay muur soxnaam su tedd di taawam ak maam Safiyatu ñu di ko wax soxna Fatimatu Bintu jërëjëf yow noo tudd ah waaye Moustapha yow garaaw nga di teet teet teet yow boo ñëwul woon affaire bi yàqu jërëjëf ma dem ma ne sunu maam dafay joxe doomam bu ñuy wax maam faat si Seydi Malick ñaari Fatimatu la am taawam ak maam Roqaya Njaay soxna Fatimatu bintu Rasulullahi la ko tuddee taawam ak maam Sofiyatu Ñang soxna Fawade Wele yaayam la ko tuddee sëñ Alioune Sall danaay wax ne sa maam daa niroog yonent bi lu bare nee naa du yonent bi de Maodo du yonent bi jërëjëf yal na yàlla fay la Maodo du doomu yonent bi waaye góorgóorlu na ba niroog moom yu bare dooma laaj yooyu yan maam Alaaji Malik rasulillahi ci biiru yaayam trois mois papaam nelaw maam Alaaji Malick ci biiru yaayam trois mois bàyyam Ousmane tàggoo gisante waatul ak yaayam maam Alaaji bokk la kenn day ak baay maam bokk la kenn day ak baay maam Alaaji juddoo Màkka ñu denc ko Médine maam Alaaji Malick juddoo Waalo ñu denc ko Tiwaawa nabi dugg Médine fekk ñii di naan sàngara ñii di jëw ñii di fen mu defar leen ba ñëpp yi fees jàkka ji di ashhadu an laa ilaha illa Seydi Maalik dugg ci ñii di fecci sabar ñii di tëgg ndënd mu defar ñëpp ba ñëpp yi naasiril xaq bil xaq wala déet ma rasul ci biir suuf juróom benn weer doomam Fatima fekki ci suuf fekk ko Maam Alaaji Malik rasulillahi bàyyi fi ñeenti xulafa urasidun Seydi Maalik bàyyi fi ñeenti doomi góor rasulillahi naroon a am juróomi xulafa urasidun mu fe mu fomm maam alaaji Malick naroon a am juróomi doom yu góor mu fomm yëg nga ne Hamza bu doon dund ci xulafaa uraasi doon lay bokk waaye sa maam ju baax ja Sidi bu doon dund mooy doon xalifa kee dem ca guerre ba des fa ca Uhud kii dem ca gees ba ca ni des fa premier xalifa rasulillahi aboubacar premier xalifa alaaji Malick rasulillahi ma ne eh aboubacar ma ne du benn waaye niroo na wala déet kii maamam kii maamam ànd ak Sidi Hadji Malick ma taala anu maam alaaji Malick nee na Sidi Ahmed mu ne ah mu ne looy wax waaj ko looy ko xam nga lu ko waral bisu maam alaaji Malick toog ci saalam nit ñi di ko siyaar alaaji Mansour tollu nii benn waay yàkkam ci ko tànk bay nàcc maam si dafa bëggoon alaaji Mansour sëñ Malick ku organisé la woon dafa jël da baax Malick ne alaaji na sëñ Babacar sa do sarakango jël maam alaaji Mansour ne Sidi Ahmed sarakango maam Sidi Ahmed gis deretu alaaji Mansour mu ne diw mu ne ah mu dagg naa la ci tariqa bi yow mi génnee deretu sëñ Malick maam alaaji Malick ba recevoir ba dugg na woo leen Sidi Ahmed mu ñëw mu ko del yéex a wax bàyyi nga ne waaj ji ma fi nekkuloon kenn dootu ko dog ndax dootu jokk ndax yow loo loo dagg Cheikh Tidiane dagg ko bul di gaa wax yow sa waaw naam sa waaw waaw yàlla la mooy maamu kii maam Sidi Ahmed ñu dem jag saaw di bay ca tool yi asamaan si bay waaj a wàcc ca tool yi ci ca asamaan si di waaj taw ñu ne tey rek la Maodo day tawte te Maodo daa am feebaru sedd asamaan ji daan ri di di di Sidi Ahmed ne du ma téye taw bi waaye Maodo du saw du sawte ñu ne déet doo téye taw bi waaye taw bi di taw te Maodo du taw te te asamaan si taw mu ne xam naa ñoo nooy benn xeer Maodo jaar jëm kër ga taw bi di ko wër Maodoy daagu di dem mag ñu topp ko taw bi di ko wër ba mu dugg biir néegam mu sànni xeer ba fa mbew da jaaroon yëpp taw ba mu ne waaw rus naa Maodo di taw Saaj Maal ne ko bàyyi ko yow loo bëgg yàlla bëgg loo bañ yàlla bañ moo tax mu mënuñu woon yàgg ci kaw suuf koo koy maamu sang bii toog ma ne Seydi Hadji Malick jigéen ñi góorgóorlu leen du ngeen ma laaj lu tax maam Maodo si dafay joxe doomam muy dem fa Taïba Niang mooy fi ma waroon a dem tey te am ngànt mu ne ko fàtt si mu ne labbay ko mu ne ko fa ngay dem loo xam ne boo fa amee dara su baaxee ñëpp bokk ko su bonee ñu jiiñ la ko yow kenn yow mi nga xam ne su baaxee ñëpp bokk ko war ngaa góorgóorlu ba mu baax ba ñëpp bokk ko tañ bañ la ko jiiñ mu ne mooy lan papa mu ne doom doom su baaxee ku ne na sunu doom ji su bonee ñu ne ndeyam xamoon ay daa mën a kii li fi ndey waaye waaye doomam jee ka bon kon jigéen war naa góor góorgóorlu ci néegu sëyam xam nga fu ma jëm ci sëñ Babacar Si laa jëm yaayam a ngi tudd maam Roqee Njaay dañ ko dénk Cheikh Sidi Hadji Malick dinaa la wax tey lan la fan la maam Roqee Njaay xamanteeg maam Seydi Hadji ba sëñ Babacar Si mel nii mu mel maam Alaaji Malick day jàngale ci daara ji magi ndar yi ñi ay bureau lañ yor ñi di dawalal tuba bi ñi di garde bureau bi munu ñoo fekke dërs bi ñu leen koy netali ñu ñew na mawda dañ lay ñaan ben samedi wala dimanche jangale tul nga taxaw ci buntu kër gi taxaw di jangale masale yi ngay jangale ñu di ko deg ndax borom xam-xam bu melni yow la muy nga xam ko dina la jëriñ mawda na accord na la chaque samedi ci ngoon ñew leen buñ julee takusan mag ñep dajé mawda jog taxaw di baagat Saaji malik dafa ci kaw respect mbolo mu nek mo fay sut bu la jubee boo ak daraja joo mën a am cër bu mën a nekk ci danga da nga koy fàtte waxuma ko sëñ Haadi Touré moo ko moo ne in jaalasuuhu taraahu mutrafina bihi min al mahabati bax bax bi ibnu Ousmane sagement di daagu di waxtaanal mag ñi maam Roqee Njaay bokk ci jigéen ñi comme jigéen ñii rek toog ci ginnaaw di déglu mu ne góoru yàlla gii de gis naa ne borom cër la dem na yaayam mu ne amu ne ko kii bu ma sañoon ñu may ma ko jigéen ñi maa ngi leen jox benn secret ku ko gis góor nopp ko mu wóor ne nopp nga ko te mën na laa yore bul am complexe ne ko yee eh, moo doo yaa may rey moo gën moo gën di dee maam Rakhay Ndiaye proposé ko si Hadji si Hadji nangu ko et eh, pourtant Khadijatu moo proposé rasulillahi rasulillahi nangu ko xadijatun dammaha bil jasli aisatan bul way hayataha xayra al muxtaaru lam yakimi mu dem ba ca kanam mu ne wa min xadijata daaran bil ajuni hawa xayrul bariyati min urbin wa min ajami xadija moo proposé boppam rasulilahi rasulilahi nangu ko ñu ne Maodo diggante ba ndax ñoom ñaar daanañ inventé message mu ne déedéet daan na ko woo téléphone mu ne xewul mos nañoo daje naan kaas wala boog jël weer mu ne déedéet mos nañoo bokk reer mu ne déedéet Maodo nuñ def ba sëy bi dox mu ne nafisatun fa dasiisun xayru mutahim Xadija dafa jël benn jaam bu ñu tuddee nafisatu doxale ko digganteem ne ko boo demee nga ne sang bi moom rek laa bëgg ndax xanaa duma takk mu ñëw sang bi ne ko ne ko nangul naa ko kañ la ñuy takk jigéen ja di dox ba diggante ba defaru yàlla dogal diggante maam Roqee Njaay ak maam Sofiatu ci Seydi Maalik laa ne ak maam Alaaji Maalik ñuy sëy ci biir ndar jigéeni ndar yëpp di ko saboote naan dafa bo dugg ci góor goo xam ne kenn xamul ndeyam kenn xamul baayam te moom kër jëkkëram li ci gën a garaaw ñii dañ na waalo waalo ñii ne jolof jolof génn góor gu dëkk ñaari dëkk maam Sophie maam Roqay Njaay dégg ko ñëw ci Cheikh Seydil Hadji Malick ne ko waa ndar nee nañ xamuñu say bokk waa ndar nee nañu aw ma njëkke waa ndar nee nañ ci ku ab tumu ku tumuranke doxandeem laa dugg dalalal sama xel doy nga ma Sadio Mal ne ko damaa tumuranke ci ñoom waaye tumuranke wu ma ca yàlla aw ma njëkke mu ne ah, mu ne ko sa njëkke mooy tànn naa yàlla muy sa njëkk mu ne ko nangu naa ko ma ni doonoon naa benn tool teere ca aali booy njaay jël naa ko def ko hëddee jox la ko Sadio Mal dem jaar ne première année mu bay fa lam fa am ñetti téeméer la ba jaayee gerte gaa ngooñ ma benn téeméer bi mun ne maam Roqaye Njaay dundalal njaboot gi ren ba déwén daara jàngoo jooju jigéen ku sa jëkkër yowuluwul du la ko def booba téeméer ci jamono bi mat na 5 millions benn téeméer bi damay dem wuti ci ay téere ca benn té benn téeméer bi waa Ndar nee nañ amoo yére amoo takkaay jëndal yére ak takkaay bu doyal ku daagu nga daagu Sëñ Aliou Sall sa maam Laaj Maal nee na man Malick Fawad bu ma sañoon góor gu may may jabar damay fekk ci moom ñeenti jikko bank leen seen baaraam góor ñi góor gu mën a sagal jigéen góor gu tabe góor gu bari sutura góor gu bari yërmande mu ne jigéen ku ko dul ah, jërëjëf yaa ngi doon ak man góor gu bari yërmande góor ku bari sutura góor gu tabe góor gu mën a suturaal jigéen mosuma leen a wax sikku ji góor première sikku góor mooy gaaw a mer ñaareel ba mën a dóor ñetteel ba gaaw a gedd ñeenteel ba mën a téesante juróomeel ba mën a dox juróom benneel ba weex bët jigéen ju ko romb mu nopp mu tàppaas ko juróom ñaareel ba mooy nay juróom ñetteel ba mooy ragal dépense juróom ñeenteel ba mooy ragal njaboot fukkeel ba mooy laaj weccet waaye ma ñëw ci sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala ñu may ko maam sëf maam Roqaye Njaay maam Roqaye Njaay saaj maal ne ko ñetti téeméer laa am yonent bi nee na saawiruhunna wa xaalifuhunna xam nga luy lool jigéen bu la yàlla booleeg moom bu ko nëbb lu ne ci yow wax ko waaye bul jël buum ak nos teg ci loxoom fu ko neex mu diri la jigéen ak xale yam bu meree fay bu xolam tàngee mu wax lam xam bu ca paree génn ca ko ku ko def sa kilifa mu si musibaam daan la nijaay mu ne at moo tax yàlla nee na ñeent duma ko dénkaane su ma ko dénkaane am ci lu ma naqari ruuxu nit yi duma ko dénkaane dund nit ñi li ñuy dundee duma ko dénkaane caabi aljana duma ma ko dénkaane caabi safara du ko dénkaane maa ko téyel sama bopp lu tax mu ne koo dénk dund bi mbaa rey gi ku jabaram mere mu ne ko noppil ba suba waaye yow noppil ok mi dee rek nga kii suba mu dee loolu laay bañ góñ dañoo nobaate yàlla dogal maam su roqee njaay sa aji maali wu nëbbu ko lii am téeméer bi jëndeel takkaay ak yére téeméer bi ba koy jëndee ci téere téeméer bi daara ji dundal leen ba déwén maam Roqay Njaay ne ko bi nga ma jox pour daara ji dinaa leen ci dundal ren bu déwén bu desee weccet ma delloo la ko bi nga ma jox pour takkaay yére am naa takkaay boo xam ne moo gën ci àdduna bi mu ne ah mu ne ko kuy soxna Seydil Hadji Malick première soxnaam ñu ne Roqay Njaay boobay cuub bi gën ci cuub yi mooy jasneer bi dàq ci jasneer yi mooy chauffeur bi gën ci chauffeur jël naa ko jox ko addiya nga dolli ko ci li jëndee téere si Hadji ne ko ah lii nga ma lebal mu ne ah, mu ne ko ah sa jëf ji yàlla dina la ca fay doom joo xam ne dina xam la ca téere ba xam la ca ginnaaw téere borom bonakaara bi ñoo fay ñu ne sëriñ bii mooy kuy jëlee taalibe ci ñeenti étape yóbbu ko ci ñeenti étape sëriñ bu la mën a lul lii mu ngi lay nax yàlla may na ko cheikhul xalifa Babacar Si e eh, sëriñ yanquluka min a shakki yóbbu la ci ilal yaqini sëriñ da lay jëlee ci sikki sàkk yóbbu la ci wóolu yàlla sëriñ bu mën ta fexe ba nga wóolu yàlla nax na la sëñ Babacar Si képp ku ko yàlla boole moom dangay wóolu sa moom leen sëñ bi defal de noté leen benn ngoog sëriñ da lay jëlee ci woo ñàkk wóolu yàlla dem ba nga wóolu sa borom laaj ma ñaareel sëriñ yan xuluka minal kibri ila tawaadoy da lay jëlee ci rek yóbbu la ci woyof sëñ Babacar ku yàlla booleeg moom danga nga wàccee sa bopp ba mbooloo moo dem dee na ñoo la ndax dafa wàccee woon boppam Cheikhul Khalifa Ababacar ñetteel bi bal la mu ne minal adawati ila nasiya sëriñ da lay jëlee ci noonoo yóbbu la ci mbokkook julit moo tax seen tijaan yi sërif keroog bi mu yoree tariqa tijaan yi maamam jox ko ko dana sama tariqa ñetti tànk la am sama tariqa ñetti tànk la am yëguloo ne bi ñaata poto la am un deux trois quatre mu ngi bëgg a bari de tariqa tijaan ñetti poto la am dooma laaj poto yi ñaata la bi ci njëkk mooy at tabaxuru fi ulumil muxtalifati cheikh nee na première poto tariqa bi ñaan naa yàlla may na ma réew moo dem koñ boo dem quartier boo dem ña fa ëpp xam-xam dàq faa jàng gën faa civilisé samay taalibe la ñuy doon vérifier leen imaam yi ak firikat yeeg gàmm yeeg sëriñ su civilisé yi xool ñaareel bi man la mu ne istihmaalu sunnatu nabi jumlatan wa tafsila góorgóorlu naa ba sama tariqa quartier boo dem ñoo fa dàq appliqué sunna yonent bi teel a yeewu naasiril xaq bil xaq foo ko dégg bul laaj Cheikh Tidiane sëriñam waaye boo ko déggee subaa ngoon nag bu laajte bàyyi borom gabarakaane ba la lu Cheikh Tidiane lu rasul lay def muy benn Cheikh Tidiane ñaareel na ko lu Cheikh Tidiane ñaareel Maam Alaaji Malick ñetteel na ko lu Maam Alaaji Malick ñaareel sëñ Babacar si ñeenteel na ko dëgg la wala bi ci des man la Cheikhu Tidiane mu ne ittiqaasu jamil ulama ixwaana bokk na ci fondement wu tariqa Tidiane kuy nitu yàlla kuy borom cër ñu nangul la sa cër taalibi Tidiane kenn feesul bëtam garaat boo mën a am nangu tàntub tijaan boo dem ñëppay woy ñëppay wax sëriñ bu ne dinañ la fa tudd te am na koo xam ne xajoowul tijaan waaye tijaan xajoo na képp Cheikh Tidiane ne maa ko ñaan ba yàlla may ma ko nangu ni ñu gëmee sëriñ Touba gëmee ko Seydil Hadji Malick ñi lañ gëmee Cheikh na Cheikh Saad bu kuy borom cër ci réew mi nangu nañ ko ndax cër yàlla yi dafa wuute te ku ne ñu jox la ko kuy taalibe Cheikh di bañ sëriñu jàmbur du taalibe Cheikh taalibe Cheikh bëgg day bëgg sëriñu jàmbur ab sëriñ da lay jëlee ci ngistal yóbbu la ci sellal ñu ne sëriñ Babacar si képp ku ko yàlla booleel nit ku sell lay doon yàlla ko defoon ci moom képp ku ko yàlla booleel day nekk nit ku sell bu ñu la laajee kan mooy sëriñ Babacar si mooy ku yàlla def ci moom ñaar ñetti yoo xam ne moom rek la ko yàlla def ci moom baga sabara mooy faayiqu faayiqu aqraani yi kum maaseel sut na la ci xam-xam ak ci ragal yàlla nangu ngeen walla nanguwuleen mooy aalimu zamaani yi kum bokkal jamono naw nga xam-xamam nangu wala nangu ah mooy saaxibul wilaayatul kubra moom la yàlla may wilaaya goo xam ne kenn du ko xëccoo benn waaye dafa dégg ñu ne sëñ Babacar si radiyallahu taalaan li mu gën a aay mooy loo koy nëbbu mu ne dinaa ko nëbbu dara te du ko xam góor gi daal day naxee li muy wax du demeewul noonu dinaa dinaa ko trompé ñu ne noo koy trompé mu ne dégg naa dafa bokk ci sartu tariqa tijaan ya kuy jël kuy tux cigarette mbaa ngay jëfandikoo póon doo nekk tijaan man nag dinaa ko nax ba mu jox ma wirdu wi te damay kon continuer di tux te du ko xam jël cigarette am di muqi rek ba jub njaasaan fay ko tuuroo parfum ñëw toog ci saal bi ne seexul xalifa damaa bëgg a jël wirdu wi maam xalifa ne ko jàkk ne ko boo ko jàppee dootoo ko ba mu ne nangu naa dootoo ko booleek beneen mu ne nangu naa da ngay fonk julli juróom di ko defee ca mbooloom boo amee ngant mu ne nangu naa sëriñ bu bokkul ci tariqa bi doo ko siyaar siyaaratul istimdaad mu ne nangu li ñuy tuddee póon bi ñuy muq bi ñuy fuun bi ñuy lokk doo ci laal benn mu ne nangu naa mu ne ma bi ñuy fóon bi ñuy mukk bi ñuy lok doo ci laal benn mu ne nangu naa bi ñuy foon bi ñuy mukk bi ñuy lok doo ci laal benn mu ne waaw nangu naa mu ne ko mbaa boo tourné ba nga suul ca ngeer ga ca yoonu Njaasaan doo ko sulli Cheikh Khalifa Ababacar si jikko yii yàlla defoon ci moom wa kaana muhammadiyan xulqan wa afan wa safhan yàlla moom jikko yonent ñeenti jikko la doon ci yonent bi ñett doon na ci yonent bi modeste sama sëriñ ba sëriñ bay abdu dafa ma ne lu tànt rëy rëy buñ la fa woowul bu fa dem tànt boo dugg bu fa dugg ngir luñ la jox boo ko defee ngir jaamu yàlla ngir tarbiye sa kër maam boo génnee yàlla teral la mbooloo moo dugg di wax bu ñuy wax noppil la ngay wax bu leen safoon ñu déglu la moo tax kuy wax dama lay déglu soo paree ma continue xam naa li may waxaleen saful wala xëy na li ma ñaaw ñaawa tax ngeen duñ ko déglu waaye li may ñaaw ñaaw di leen rek ba déwén seet keneen bu dee ne ngeen seet keneen waaye man mu ñaaw mii de tey maay wax de mu ngeen ne ba déglu ma rek te jàpp ci yàlla wa kaana muhammadiyan yàlla def na ci moom mu yor jikkoy muhammad ci ñett modeste mën a jéggale ak mën a jéllale suñ Babacar dafa modeste mën a jéggale mën a jéllale xam nga lu ne bu njëkk ku mos am muuru doo ko joxe ci kaw taaku suñ Babacar nga koy indi ñu rangale ban séesi ñu rangale paan yi yiy def ceeb saako yii def dugub yii def mboq suñ paree moom moo xam miskin yi mu koy jox mu booleeg muurum kooram joxe suñ Abdou Aziz Al Amin mooy sot mooy kalaksone di jóor di sotti génn góor ñëw di siyaar suñ Babacar fekk ko fa mu ngi sol caaya juréy mu takk suuf si takk fii tekki caaya ji di tibb ceeb bi di sotti xanaa faal sant wala ñang di sotti ba mu fees mu takk ba génn maam xalifa ne kalbeet bunt bi ne ana Abdou mu ne bëreet yem coow na bëreet affaire ba tas ceeb ba ne tasar mu daw ñetti ñetti escalier sewul xalifa di ko xool ba mu jàdd ko mu ne al amin mu ne ah mu ne ko ngóor sële borom caaya juree jee toppal ma ko ba xam fu mu ne boo xamee fuy këram muuru koori nañ ko xaaj ñetti xaaj ñaar yi séddaleel ma ko miskin yi benn benn bi joxal ma ko te bu mu xam ne maa ko ko jox bu doon léegi daan jàppale daa joj joj gaaw leen tëjal buti jàpp modeste jikko yonent bi la yoroon moom sëñ Babacar Sy salaay salaam sëñ Aliou Sall dafa génn di doxantu eh Jamil maa ngi lay wax ñett yi bu la dalee xamal ne nabi ñëw salaay salaam bu dee ñëw Dakar bu sedd guy ba mel ni kilim foo toll da ngay sedd bu la dalee nabi ngi ñëw neel jant bi nee na rus naa di génn taaru yonent bi di concurrence ak man fu ma jum damay jaw dugg ñaareel bi nabi dëkk bu mu jub bu jëmee ndakaaru bu tolloo tëggeej day am xeetu parfum gu sedd guy parfum aljana na bu ñitti dëkk bi koñ boo jàdd mu xeeñ kun bu la dalee nabee ngi ñëw laaj ma ñetteel dëkk bu mu jëm a 7 kilomètres leeru jëm mooy leeral dëkk ba boo demee ci mawaaxi bu la dañ daa ko fa fekk puso bu la waddee minuit bu làmp ya fayee leeru yonent mën koo leeral waa ji nekk ci toolu tàndarmaam di liggéey waay waay waay Abdourahmane Pay mii bu nekkoon ci toolu xaalam di bay sëñ Abdou Aziz Al Amin mu baax ma romb ko wala Serigne Babacar mii nekk ci toolu xaalam di bay turandoom Serigne Babacar si Mansour xalif général des Tidiane yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak yeeg magam yépp bu la rombé waaw ngay bay do yëkëti ci xaalis dana ko sëriñ bi maa la ko jox addiya muy bay ci tolam dégg xeetu yonent bi di ko xeeñ mu ne ki may xéñ nabi la xol seen nabi di ñëw mu daw dag dagg cëggug tàndarma ñëw ci yonent mu jox ko ko mu ne ko addiya tan lak nabi di lek sarax addiya lay lek Salman Faris kérok bi mi tuub dafa ne dinaa ko nat nenañ ma ki wara nek khatibu lambiya du lek sarax addiya lay lek yëkëti addi sarax ne ko nabi sadaqatan nabi pousko ko mu joxaat ko xaalis ne ko sarax bi puus mu joxaat ko ne ko haddiyee nabi dugal ci poosam mu ne waa jàngi waa ji daaw dagg tàndar ba fekk yonent bi fi mu tax yonent bi bu daan dox xoolal Seydina Abubakar day toll nii Seydina Omar ibnul Xataab toll nii Seydina Ousmane toll nii ci ginnaaw Seydina Alin toll nii muy dox ci diggante bi Sadio Maal ne boo bëggee xam nu nabi daan doxee laaj ma ko man bàyyi Babacar Seck da baax Maali maa ko xam sëriñ soo ko laaj day gàtt ñu ne Maodo nu mu daa doxee mu ne yem si takka fu aw nan woo taa ilu man maa saa wa in kaana mi man li tuwaal nu eh, ma defal leen nu nabi daan doxee bu la laajee sëriñ ku ci gën a niroo nu muy doxee ci Sénégal bi neel sëriñ Mansoor si borom daara boo gisee borom daara yi daagu rek gis nga rasulaay mu dox doo laaj nabi nu mu daan doxee Maodo ne na xam naa ko ñu ne mu ne yem si takka fu aw nan nii la nabi daan doxee Maodo na yem si takafu xaw nan day dox ndànk boo gisee borom daara ji daago rek da nga naan rasulullahi mooy daago la woo taylu man maasaa kum doxal moo lay sut wa in kaana mi man li tiwaari nu boo njoolee ba toll si kaw bu nabi dox yow bu sëriñ borom daara ji bu ne nii garam bu bam daagu rek boo jàngee siire da nga daan rasulillahi sëñ Babacar sa baax ba baaxi doom mbaax balaa baax ñu xam ko ci say doom nee naa Seydi Hadji Malick koy concurrence ak moom bu ci boole ñett ñett yii ku koy concurrence ak Maodo da ngay réer xam-xam bu leer te man koo jàngal ku Maodo jàngal yaaraw ko Maodo jàngalul nangu nga diina ji set te dara raxu ko diine Sidi Hadji Malick dara raxu ko xanaa muy ñaar baaxi doom ba ñëpp bëggoon seen doom mel ni Maodo baaxi taalibe ba kuy taalibe Maodo ku dul yow xam ne Maodo la gën maam Alaaji mën soo ne ashaabu hoo laysu ashaabun siwaahu hadiyatan biha ilaahu abaaw bul way ngir yàlla bul dem damay doog a commencé <laughs> dugg ngeen nag yéen pour yéen kañ laay ba non man mi man pare gu ma de man dew ma fajat neuf heures la daloon dof ba laay bañ mu dal leen dof ba daa ñëw ci dëkk ba fekk paa yëpp toog am ku ne dof bii de wallaay moytu leen ko ngañ mi mbaa kenn tudd fi ngañ ngañ mi lu mu ñaan mu nangu kii ne ma ne démb bi sama fas réeré dafa maa ñaanal mu fekk sama jabar ji démb bi muy bëgg a fay moom ma ñaanal ñu ne koñ ngañ ñaanal mu ne jox leen ma déet da may jox ma doog a ñaan ku ne jox ko ba poos bu ne pare ngeen ñaan wax naa ko ba pare ku way dénkaane deme tàkku saan daal balaa mat yàlla na ngeen dem aljanna yëguloo ne aljana ñett du fa dem dugal sa baaraam màgget di nit ku ñuul di dugg aljanna joolaa du dem wolof du dem saraxule du dem soose du dem bambara du dem pël du dem séeréer du dem manjaago du dem ñii ñëpp kenn du dem aljanna magit du dem ku am 40 ans pare boo waajoon fommal doo ma laaj lu tax nabi bu ñu demee ba ci kanam yàlla ba mu àtte jaam ñi ba ñu war a dem aljanna dafay réduire at yi ñii mu yokkal leen ñëpp 37 ans la ñu am te dootul yokkati parce que 40 ans ku fa yegg ndigg di métti mbaa tànk di métti foofa dafa neex aadama ak liir bi doog a judd ñooy même même pied de légalité même date de naissance 47 ans te dootoo ko weesu ndax foofa dafa neex xam nga lu tax nit ku ñuul du fa dem bu ñu xisaabee ba pare ñun ñëpp deru yonent bi la ñuy war langue yonent bi la ñuy yor ak ñun ñëpp ay arab la ñuy doon ñun ñëpp arab la ñuy làkk bu ëllëgee dañuy weex tàll lisaanu ahlil jannati fil jannati lughatu rasulillahi aljana it boo ëllëgee ku niroolu ak nit ñi loo sol doo dem moo tax tànt boo dem jigéen ñee gën a jege aljana la bay jasaakum laa na xëy sëñ Babacar yàlla na la xaalis yoon ah oustaz buy sarax yow de bu oustaz yëpp defoon ni yow laa ilaha illallah waaw xanaa kii day xaru jërëjëf yàlla na nga fi yàgg jaay rasulillah yow de yow di nga dem moom yow di nga dem aljana yow di waa ji seen rasulilaay muy ñëw dama leen ne jikkoy sëriñ Babacar si jikkoy yonent bi la yor ma bëgg laa jàngal benn xisa ci jikkoy yonent bi nga xam ne lii ma la nettali ci yonent bi la ko doon ne waa ji seen yonent bi mu dagg cëggug tàndal fekk yonent bi mu toog wax naa la ni nabi di doxee Babacar a ngi fii Omar Ousmane Ali ñu wër ko mu yëkkati cëggug tànd bi na rasulaay hadiyatan lakk nabi dagg di lekk Babacar a ngi taxaw Omar Ousmane muy dagg di lekk di dagg di lekk di dagg di lekk bëccëg gi tàndarma gi jeex mu ne waa ji tàllal ma ñaanal waa ji tàllal boo demee ci kutubu tariqatu tijaan Cheikh na tijaan nee na am na lenn ci góoru yàlla yi ku lekk seen alal doo dem safara dootoo ñàkk kuñ lekk sa alal doo dem safara dootoo ñàkk dégguloo ma de sa sëriñ bu la laajee jox ko bu la mayee te ñaan waaye bu ko ñaan waaye bu la mayee jëlal bëgg naa laa defar sëñ Mansour Borom daa toog ci saalam taalibe Mansour Ndiaye buntu saal bi nuyoo rek sa mën son jaay yow man lañ la tuddee ci lépp sa poche droite boobu def nga ci deux millions poche gauche million bi koy def ca sa néeg di ak la ca nar a jënd fi ma toog sama néeg yàlla wan na ma ko tegal fii muy dii tëdd ne ko ma ne Mansour xaalis bi fii deux fii indi mu jox ko ko sëñ Mansour di ko joxe par dix mille vingt mille ba saal bi jeex mu ko tàllal ma ñaanal mu génn mu ne eh nii rek la ñuy def xaalis bi bu ko lekkee am na or am na choc bu koy waaj dal bu lekkoon xaalis bi bu demee ca choc ba da cay des ñu teg ca une semaine muy dem gàmmu ca gannaaw ngaay def soog oto ba mokk mun a cëpp dara wokk ko ñu wax ko borom daara ji mun a yaqihi fii tariqihi lmahalik sëriñ dalay mën a fegal luy ñëw bu la mën a lu lool teg ko fi dalay tardé kooku doomu Babacar si moo ko def moo tax nga xam ne góor yàlla yi bari coow li bari na waaye waaja waaja waxoon ne Maodo amul école nee na Tiwaawan amul sëriñ ma ne ko ak ah, wax dëgg yéen ngeen Tiwaawan amul sëriñ dama laaj lu tax ay nit yàllaa fa de sëriñ day nay mbaa mu siis mbaa mu bëgg daraja loo ko jiitalul mu gedd waaye sëriñ bu la woo 31 décembre yëkkati 200000 na la am pour nga jaamu ci yàlla kooku wutul daraja wutul loo ko jox kooku nit yàlla la waaye duub sëriñ nangu ngeen wala nanguwu leen ay nit yàllaa bëccëgu tàndarma jox rasulilaay rasulilaay di lekk bëccëgu tàndarma gi jeex mu ne waa ji tàllalal ma ñaanal la waa ji tàllal bu ñaanal ko waa ji dem mu ne gars yi nañ dem Seydina Abubakar ne ko dem ah, duñ dem di day yomb ah yow buñ la mos a jakkaasu nga bokk ñun buñ la mosaan a jox daggitu mbiskit nga bokkook ak ñun buñ la mosaan a jox kaasu dute nga bokk ak ñun tey cëggug tàndarma mat na juróom fukki doom nga lekk ko yow kenn mayoo ci kenn naan nañ dem duñ dem jazaakumullaahu naa xayran yal yàlla fay la jërëjëf yal na nga fi yàgg jërëjëf waay jërëjëf macha allah allahu yujaazikum anna xayran yow lu ñu la mos a jox dañ koy bokk ak ñun tey ñu jox la tëgguk tàndarma nga lekk ko yow kenn mayoo ci kenn duñ dem déggal yonent bi ca mbaax ga tedd ga mu ne ah siisuma du dama xiif waaye waa ji dafa xër may ma tàndarma gi te ñorul ma ñam ko mu weex te bu ma leen ko mayee ngeen ñam ko mu wex da ngeen gañ ñi mbaa ngeen yàbbu ko mu am ci lu ko naqari te bëgguma nit di ma teral jëlee ca déception ma faf ko lekk wan ko ne neex na mu kontaan ma ñaanal ko moo ma gënal ma jox leen ko ngeen yàbbi ko waaye tàndar ma ji neexul waaye yéene naa leen ko xanaa lii mooy mbaax bu doon Alioune daan ceetal <coughs> ma beneen Cheikh na Tidiane nee sama xalifa dëgg sama taalibe dëgg yéen taalibe Cheikh yéen nga ne taalibe Cheikh ak Tidiane du ñu benn du ñu benn de du ñu benn de taalibe Cheikh ak Tidiane du ñu benn de déedéet koo gis mun na ñun Tidiane ñun taalibe Cheikh du ñu benn balaa maa tëj waxtaan dinaa ko leeral Cheikh nee na taalibe Cheikh day yor ñett ji ko man lisaan wa bi zikrillahi naatiqu koo xam na làmmiñam fu mu toll balaa wax lu muy yàqee mbaa muy wax lu ñu koy sikkee mu tuddee ko yàlla kookaay góoru yàlla piir ak ban mu ne wa qalbuhu bi ubbillaahi waatiqu koo xam ne xolam boo ko seetee fees yàlla ak bëgg yàlla lay doon ñetteel bi bana mu ne wa sirruhu bi wujudillahi saadiqu secret dëgg ba tax loo jaarale ci moom yàlla nangu ko digganteem ak boroomam dafa dëgg loolu la yàlla defaloon Serigne Babacar Sy ba lépp loo ak ci moom ci sa digganteeg sa borom sa sa boroom yàlla subhaanahu wa yàlla fay la ko lu soxla jafe-jafe nga toog ci réew di sëriñ Babacar Si ñaan ko yàlla mel na nga war a mel yàlla rus na la koo delloo waxuma ko de alaa jab des da baax moo ko dane yaa saahiba rawdatul uzma allati sharufat bihil bariyatu turran ni'matallahi yow borom rawdu bu tedd bii nga xam ne sa rawdu bii sharufat teddee na bii ci rawdu bii al bariyatu waxuma sax ku gëmul yàlla kuy mindeef bu la wóoloo bu ñaanee ci sa barke yàlla nangu loolu mel na mu war a mel moo ko ko may saa jab des da bi muy bi muy tagg sëñ Babacar ba yegg سيرين جدفنا فمن البهور اخترت بحر الكامل لكماله في مدح شيخ كامل بحر وافر امنا بحر بسيط امنا بحر مديد امنا واي اخترت بحر كامل لتخمن في مدح شيخ سيرين بما يتك دفما تنك الكمال لله والانسان دائما في محل النقصان خمغ لوي إيه لول كمال سن بابكر مويلان yab na aadama atte nii takkun rabbaaniyan taqulu li shay ikun fayakun yàlla wax ci hadisul qudsi ne yow doomu aadama bi soo bëggee lu ma bëgg ma nga bëgg ko loo bëgg ma bëgg ko ku jaarale ci yow mbir yàlla nang ko ni Babacar si mel seeyal ci man ba jeex tàkk luñ jaarale ci yow mu jëm si ci man man yàlla ma nangu sëñ Babacar si jeex tàkk ci yàlla ba muy nekk xale bu tuuti nee na Cheikhul Hadji Malick si radiyallahu taala anu dund naa ak moom bay xëy génn àdduna mosu ñëw wuute góor ga Aline babu nguma géewul bañ ko laaje kan moy Serigne Babacar Si daf atiqu abi bakrin khalifatuna ka sayri walidihi fil qawli wal amali mune sara doxna al atiqu ki set wetch di Babacar Si khalifatuna mi sunu khalifa ñun tidiane yeb ka sayri walidihi lu alaaji Malik defon rek da ko yok way wañu bil qawli wal amali lu mawdo don def mawdo serigne Babacar Si defat nako lu mawdo don wax serigne Babacar Si waxat nako ko alaaji Malik wax ne ku ne Maodo wax na wala nga ne Maodo def na tooñ nga ma man maay dund ba tey génn na du ma def du ma wax ñu ne alaaj maa looy def mu ne wa kullu ma faaltuhu nawaytu fii iswatuhu salla alayhi musafi lépp lu alaaj rasulilaay def rek man alaaj maal dinaa ko toppandoo waaw ma laaj leen benn question balaa ngaa wëy ma alaaj maal dane bu yoomal xiyaamee ba bu rasulilaay daagoo Babacar topp ci Omar topp ci Ousmane topp ci Aliin topp ci man baaba man alaaji Maalik Si maa leen di juróomeel lu leen ko may mun a jëf te jëf naa lu ni toll jigéen ñi maa ngi leen dil ñaanal képp ku fi toog ci yéen yàlla bu mu njaboot wax leen ameen yee yàlla bu leen njaboot du ngeen ami ku ci ne ci sëy yàlla boo njaboot ku amagul boo sëyee yàlla boo njaboot jigéen ci jaboot baaxul doomu laaj mooy kan ku ami doom ku dul doomam yóbbu ko doomam rek jigéen tey jaboote mooy li ñu wax léegi ci kër Sëñ Aliou Sall kii moo ko wax yéeg ca kaw ubbi frigo ba naanta te dëkkoo ca kër ga jurul la kooku jabootee ko man anam jërëjëf waay waaw kay waay mu ngoog loolu mooy jaboote jigéen ju jaboote mooy koo xam ne xamul kum jur xamul kum jurul ku ñëw ci kër gi nga bokk lay nuyu sëñ Moulay sama baay sama sëriñ programme mu gàmmu conférence sama loxo la ne du jàpp benn date date yëpp maa koy jàpp ñu ngi lay nuyu di la ziyaara fii nga ñëw kii moom sa goro la ma dem iza lam yakun fi sheyqi xamsu fawaidi wa illa fa dajaalun yaquudu ila al jahli mamalaaji maari nee na buñ na diw sir la xoolal yii may bëgg a wax benn bu ci manqué matul sëriñ yàlla dajale yëpp ci sëriñ Babacar بصير بأحكام الشريعة عارف ويبعث في بحر الحقيقة عن أصله بصير بأحكام الشريعة dafay dégg sharia sëñ Abdou Al Amin nee na daan na xëy ba jant bi sonn ci téere yi lëj lëj lëj lëj lëj lëj ba jant bi so du añ du reer du ndékki ndax li jënti benn masala mu ne basirum bi ahkaami shariat xaarifu day xam yàlla ba mën a xamale yàlla sëriñ bu la mënta xamal yàlla wa yabasu fii bahril haqiqati an asli dafay mën a xuus ci baxrul haqiqa ba lu ci taalibe war a la jël mu lijjanti ko bi Cees bana mu ne yu barridu lil wuraadi bil bishri wal xiraa wa yaqdau lil miskini bil qawli wal fiali Abdourahmane Pay moo ko wax léegi mu ne mag ñi dañ fa daan jógee samedi ak fekk fekk sëriñ Babacar si mu di leen teral sëñ Abdou Al Amin moo daan andi aññe mu ne lil wuraadi dafay teral wëy gan ñii wut bu ñëwee dañ koy fekk mu toog maam xalifa si bu daan maam xalifa Ababacar si bu daan recevoir gàmm demoon na ba loxoom bi dootu ko mën a bank day tàllal rek ku ñëw téye bu gàmmu passé woon loxo bi day néew sëriñ Habib si bàyyi sëñ Moulay mi mu tëdd moo daan taxaw ci wetam loxo bi dafay yong jëf ba du ko mën a téye bu gàmm passé loxo bi dafay néewi mu ne yu bari yu bari du lil wuraadi ñiy wut si yàlla day toloxal boppam ngir ñoom wa yaqdaw lil miskini day toloxal boppam ngir miski ngir miskini bil qawli wal fi'li waxam du ci wane ne maa toll nii da jëfam du ci war ne maa toll ni day wàccee boppam ba taalibe bu ñëw mu yóbbu la ci yàlla te du la war ne maa la yóbbu ci yàlla boo koy bàyyi Serigne Cheikh Tidiane Sy radiyallahu taala nag laa xaar yi dañ ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatoo bi isni rabbi wala si xabu sa laa yaxruju ilaa nakidan li ngeen di wax ci sëñ Alioune Sall mi mënta ñàkk ah jërëjëf yal na yàlla fay la boo amul wujj yàlla boo ko am wujj neexul ci xol wala déet léeg-léeg nga gis góor gu naan jigéen dañoo fiir te góor gu ci ñëwoon fekk sa néeg am góor gu góor ku fa jigéen jooy góor tëjoog sa soxna ci néeg ñu ne kañ ñu ne suba balaa bët a set di nga xam mbëkk miir yi yow nga tàgg ko aay ji feneen yow mu defaral la kafe nga naan ko yaa fiir yow yaa fiir wala moom wala déet wala jigéen ji jàmbaar rek yal neen yàlla fay kenn du ñoom Sayyidatuna Xadija moo dugg géew duggaaleen géew si Malik radiyallahu taala nu biñ ko laaje bi yonent bi taxawé ci mbéd mi woté né yalla ma yonni ku ñëk a gëm dane borom tiaay yeeg borom ndaxane ñoo ñëk wax c'est pas vrai borom musóor yeeg borom garambu bi ñoo ñëk wax ne c'est vrai ñu né mawdu binal muné khadijatun wa aliyun bulway ngir yalla dama guddé wabnu arisatin wa man bi dawati usman soo salam jigéen a njëkk a taxaw ne damaa gëm yonent bi kéro bi ñu mayee rasulillahi xadija waa Màkka gep dañoo taxaw né khadija rasulullah nobu ko da koy nax alalam la bëgg lek nobu ko de xale bii ni mu rafetee ni mu yëwee ni mu sellee tollul ci vingt cinq ans kii dem di sëy ba magé ko quinze ans sëy tas seyat tas am fee ñaari doom fe mu am fa benn doom mu di ko takk alal ji la bëgg lek lekk ko xale jigéen yaa ngi nii nopp ko mu bay alalam la bëgg lek lekk yëguloo ne ñu ngi ci jamono boo xam ne kuy def lo yëkkati ñu wax nga teg daa du ba dee sa dara du jag te ku la dàq sikkal ma nga naag lu ne weng te fàtte ne ko di wax ci ku jambu wax naa ko jigéen ñi ne ku ci xuloog sa jabar sa jëkkër ngeen bëkkante ba bët set boo xëyee ba yeewu sëlmul ba set lippoleevu puudaru pasteelul puudaru puudar ah musóor gu toll ni tànt bi toog sab tale tey sappe ku la ne ana Moodu nga ne ko soriwul moo de daf maa lakk léegi lañ doon bëre te ay kur fañ ngeen fanaanoo jigéen ñi sagal boppam dooma laaj lu tax boo demee ba ne aha nañ ko wax diw soo ko ko waxee mu wax ko diw di wax ko diw di wax ko diw balaa ngoon a jot ba ñu yekk ceebu jën yi ñëpp yëg ko kon ni tey sagal boppam comme bu neexee kenn du ko yëg bu naqadee muñ ko te jigéen kat bu dee sëy te mënta ñëbbu natt sëriñ bi ñett jigéen ju ko mënta nëbbu mënoo am doom ju baax ju mel ni Babacar si may waxtaanee da ngay góorgóorlu ba nëbbu ñett ba nga sa baram kit maanul xada bi del mer tey nëbbu waaye mbirum lacc nga góox say lex ba muy niroog bal bu ova bu ci sam tuñ ba muy niroog palaat buy waaj daanu min wi lañ lay fase nga ñibbi min wi jigéen day wanaasu mer laaj ma ñaareel bi kiit maanu na del jëriñ sa jëkkër te bu ko wax waaye loo ko defal wax ko goree di rek de waaye barki démb la ma fi natt bi ne ko fuuf nii rek la mel doo jëriñu laaj ma bi ci tegu kiit maanu la bi xabal ko sikk nëbb ko jëkkër doo ko xamalee sikk nëbbu ko moom la la yàlla booleel sunu maam Alaaji maali mu ne sëy balaa neex juróom-ñaar am benn bu ca manqué sëy ba yëngu ñu ne Maodo juróom-ñaar yooyu am la mu ne ku jigéen ki day yor ñetti jikko ku góor ki yor ñetti jikko ñu séddoo benn jërëjëf waay yal yàlla fay la yow de yaa ngi nëbbu ñett yooyu yow Maodo nee na sëy balaa neex ñett ku jigéen ki ñett ci góor ki ñu séddoo benn ñu ngi may dégg góor ki yow miñ ko dénk boo ko dul sagal lu ko dal yow xanaa muy ñett ku jigéen ki na yor ñett bi ci jëkk bal la mën a na woyof xool leen sama mbaxana mi lu ko ko may pour yéen woyof bu diisoon ba mel ni saako ceeb mënumaa dëkk ci nii dama ko naan ci suuf bëcc kon soo bëggee ne nong woyofal ku bëgg sa jëkkër far la woyofal ci moom wala déet ñaareel ban la mun a gàttal tànk te gàtt làmpeñ làmmeñ jigéen ju bëgg sa sëy neex da ngay gàtt tànk waaye yor jëkkër bu génnee nga ne mes bu ne mes nga ne menteng bu ne menteng nga ne foraas bu ne foraas nga ne muy ci koñ bi ñu lay yër fajar lañ lay fas ñetteel bi ban la Seydi Maalik mu ne lu mu am na la doy lu keneen am bu ci sa yoon ne waaye jigéen joo xam ne lu moromam am mu teg ci bëtam bu sa jëkkër amul xanaa ku ne am na ñett Maodo bi ñuy séddoo ban la mu ne ku ne nopp sëy balaa neex ku bëgg waye ki bëgg ké ban yag yag sëy ba du dax wala déet wala déet mané wal baladu tayyib yaxruju nabatu bi izni rabbi wala si xabusa la ya ila nakida la du way ju firi de ñu may déggam Cheikh Tidiane mo ne dañ ne wal baladu suuf at tayyib bu ñu teel ruuj wutal ko jiwu ko yaxruju dina génne nabaatuhu gàncaxam bi izni rabbi ci ndigalal sunu borom ba boobu góobi maa nga déet am fekk fa dara Cheikh Tidiane ne déedéet yàlla na mu ci loolu daf ne wal wal wal baladu wayyul ak tayi bu bu ni yàlla bëgg yaxruju dina génnee nabaatuhu bi mu seetu xolam ci yoonu yàlla wallazi way jur woo ne xamu sa sagar ko am moo koy tas wallazi way jur woo ne xamu sa sagar ko am moo koy xoos ba mu jeex laa yaxruju du jur illaa nakidan loolu chef de bande wala agresseur doom yaa ngi rawante déggu leen ma de ku bëgg doom ju baax wutal jaay ju baax waaye ku bëgg sa doom baax wutal baay ju baax waaja daa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ko man bay naa amuma yenu naa saako amuma commerce naa amuma lijjantiwu maa lijjanti naa amuma nekk naa homme d'affaires yoruma dara lu ma am dañ ma koo may nabi ne ko sa papa lu mu daan def mu ne ko ay li yéen jàmbaar la woon li ñu koy gis ci jàkk ji yëpp nag sàcc la doon liggéey luñ mos am da koo sàcc nabi ne ko ngani mu ne ah, mu ne ko sàcc de daaraam waaye boo sàccoon am boo doon sàcc di am de waaye dafa araam bu ko def waa ji na ko du ko def jërëjëf yal na yàlla fay la jërëjëf Balde waa ji bàyyi ba jumaa jot yonent bi amoon na be ay dàll yu marron benn buur moo ko yónnee woon ajjuma ba àjjuma la koy sol na bi teg dàll yéeg ci kaw minbar bi di waa ji xudd waa ji doxee ko ginnaaw sàcc dàllu góos wa dem këram denc ko ñëw ci jàkka ji toog fas kanama na bi xutba bi neex lool mu julli julli gi neex lool sëlmal wàcc minbar bi ana dàll dàll na mes ana dàll wa ñëpp yi xoolante nabi nabi duma génn jàkke ji te dàll wi génnul waa ji ne këj rek Seydina Omar ibn al-Khattab Aboubacar ne dàll wi de li yonent bi wax te bëggula génn jàkk ji gàcceeg ñu ci bëgg a dal ku ko génnee ma jox la téeméeri gëlëm waaj ji ne na ko Babacar nga ni mu ne ku ko génnee ma jox la téeméer de mu ne c'est sûr mu ne waaw ah, mu ne ko yaa ko wax de mu ne ah, ko da ngaa gis noo gisuma ko toogaat damay laaj rek na daal yi génn mu ne pat Seydina Omar ibn al-Khattab ne ci wax ci wax xam ko damay laaj toogaat Seydina Ousmane bu Babacar ma ne téeméer Omar man téeméer man naa ñeenti téeméer li ma man mënuñ ko bu daal yi génnee mu ne waxaat ko Ousmane waxaat ko mu ne ko ñeent nga wax de ñeenti téeméer wóor na mu ne waaw mu toogaat da ngaa gis dàll mu ne gisuma ko sëñ naa leen sama turandoo ne ah man de yàlla dogal na yoruma dërëb waaye sama kër ñetti téeméer fa ku génne dàll yi ma teg ko ci waa ji ne waxet génn daal di jàkk ji daw ën dàll wi na déet balaa dàll wee génn na gëlëm yi ñëw yonent bi ne ko joxeel mu joxe ñu jox ko gëlëm ya mu joxee fa riche moo tax ñu ne nit la ne la baayam nekkoon maamam ne ca bu ca góorgóorloo yàlla fekk ko ca moo tax sëñ Aliou Sall nekk ci li yàlla may ko lii inna abaral birri an yasilla ahla wuddi abihi ba yawmal Wow, wow. kan laay waxal borom sàkkara yàlla bi borom ijaaba bi noo tudd moodu sa baay tuddee la moodu nga tudd moodu ba kay dee moodu yaa bon déggu leen ma de boo bindee lettre ne borom lettre bi fu jëm ñu ne kër borom daara yi ku koy recevoir pourtant ñi ubbi daara bari nañ boo bindee lettre ñu lettre fu mu jëm ñu ne kër almaktuumu fu mu jëm et pourtant ñi ñu tuddee Serigne Cheikh Ka bari bindal lettre nga ne kër al amin la jëm fu mu jëm fii kuñ ne wóoroo nga bañ te buñ ne amin ñëpp fàtte sa bopp ndax moom bindal lettre nga ne lettre bi góor gu ñàkk caaxaan gi te ñeme dëgg du dem loolu ci kër sëñ Bay Mansour bindal lettre nga ne góor gu bari xam-xam bi te yaru duñ ko jox ku dul sëñ Maodo si alaaji Mansour ne nit bu la sa tur ba ñëpp xam tur wa fàtteel tur wa liggéey tur wa xam ne mooy sa turu jikko loolu la sëñ Babacar si defal Seydi Hadji Malick lil mar ila sakka axlaaqun tadullu bihi nit ku ne da ngay góorgóor ba bu la sa baay tuddee tur nga fàttee tur wa liggéey tur wa xam ne buñ ko tuddee xel yëpp dem ci yow looloo dal sëñ Babacar si mu liggéey ay turu jikko yoo xam ne buñ ko ko tuddee kenn ku ne nga fàtte sa bopp ndax moom doomu alaaji Maalik mayu ko ko taaw xalifa premier xalifa alaaji Maalik mayu ko ko rakku Sidi Ahmed mayu ko ko da koo liggéey dëggal wala déet man Alioune Diagne wax na ñeenti yi ku mu dal ci dëkk bul mer kenn mereel sa bopp juddoo ci dëkk bi yaroo dali foor màggee wax ba pare ñu ne xanaa du waxi diw jaru dóor sa doom ku mu dal mereel sa bopp xanaa muy benn juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi lu réer xel yëpp yow lay daj ba keroog muy feeñ yaa téyewul sa loxo portable bi torta ñu ne ana Moodu wooteel balaa Moodoo dem wooteel gaaw Moodu yawa juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi bu ñuy wax farata bu ñu la séenee ngay ñëw ñu ne noppi leen aha mu ngi ñëw de aha mu dem waaye ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi dee naqadiwul kenn kenn jooyu yow mi dee mereel sa bopp fa am na noo doon mel boo dee mu naqadi nit ñi dañuy wàccee sëñ Abdou Aziz Al Amin ci taaxu sëriñ Babacar sëñ Bay Mansour jiitu ronxañam di topp sëñ Pape Malick topp ci ronxañam di topp ñu jàppoo góor gi ni mu daan yéege taaxu sëñ Babacar tey ñu jàppoo ko di ko wàcc Tiwaawan gépp di yuux maa ngi ci tali bi taxaw ci buntu kër gi ma jooy ba tëdd ci suuf ku moom jooy maa tey ma jooy ba xalagu na ki ma dendal mu ne ah ma ne ko Tiwaawan yuuxu yëpp tey ñeent ni tey jooy mu ne ma dëkk bi ñëpp a ma ne ko ñeent rek jooy ak kii jooy way tariqa bi ak kii jooy way gi wéet na ak kii jooy way lu ma yóbbooti sama kër nit da dangay am jikko ju baax joo xam ne ñëpp dañ la koy xamee loolu la sëñ Babacar Si defal Seydi Hadji Malick ci tariqa bi billahi tariqa tijaan buy tas fii ci Afrique Cheikh Oumar Fouti la waaye bu ko nit ñi bëgg nag Seydi Hadji Malick la waaye bu nit ñi xam Cheikhu Tijaan sëñ Babacar Si la jërëjëf Allahu

sunu maam Cheikh Alhaji Abdel Dabakh wax na ko ci réew di sëñ Babacar maa ngi toog mu ne taalibe yëpp bu jëlee seen cofeel teg ko ci balance ci sopp sëñ Babacar man baax Malick bu ma tegee sama bos wat sëñ mën soo a ngi toog sëñ du toog sëñ Mansour ne ko ñooy ay dooma ñun sax xam nañ ne li nga am ci moom amuñ ko ci moom xam rek kim amal affaire maam Khalifa Ababacar si bi Maam ji Maalik di génn àdduna 37 ans la am Maam Alaaji Mansour am 22 ans Maam Alaaji Abdou Aziz baax am 8 18 ans Maam Habib am 16 ans Sëñ Abdou dina koy nettali ba ñu dencee Maodo maa ngi lay wax ne la Maodo Malick si radiyallahu taala anu sa maam mu ngi faatu jamonoy séebéet boo xamul séebéet mooy bu ñuy ruuj ba asamaan si waaj a taw Maodo dañ koo denc matul weer asamaan taw moo wax Thierno na Nour ne ko dinaa génnaat at mii ñu ñëw ba ca topp laay nelaw fu la mën a fekk na ko fekkee weeru sàngam bu amee nangam ci fan lay nelaw yoor yoor laay nelaw bu may nelaw mbubbu jàllaabe laay sol bu maron fu la mën a fekk fekk ma fa rasulullah ma ko wax te du musuma nax keroog bi maam Alaaji Malick si radiyallahu taala di nelaw Ceerno Seydou Nouroo nekk ci biir néeg bi sëriñ Babacar si radiyallahu taala anu cheikhul qawmi Alaaji Mansour Mam Safiyatu ñang seen yaay jab das da bax sëriñ mam Habib mam ala sëñ babakar ne alaaji Abdou mu ne amu na ko jàngal suuratu yaasin toogal ci suuf sa papa di deg bala yasin ba jeex mawdo dog la wax nañ ne aaya bi mawdo tol bi mam Abdou tollu mawdo dog kuko xam boko ko faju man na xawmako xana ñu laaj ko bi kenn sonal malik ne bala ma dem Ceerno Seydou Nour ne ko dama laa bëgg laaj ku dee yóbbaale mébét luy sa mébét Ceerno Seydou doon laaj de mu ne li ma bëggoon ci taalibe yi am naa ko li ma bëggoon ci diina ji am naa ko li ma bëggoon ci tariqa bi am naa ko li ma bëggoon ci njaboot gi am naa ko sama place Babacar mat na ko sëkk ñu ne ko soo dee ku lay doon mu ne sa taarifoo na homin baadi du lu may annoncé du ma def testament su ma fi génnee ci biir jëfam rek di ngeen xam ne kii mat na sëkk li ma doon moo tax Sayid Sukkayri ji li samp Serigne Babacar si Sayid Sukkayri ji moo bind lettre jaale Tiwaawan ne maa ngi leen di jaale Cheikh jaan feeñu ne ma ne Maodo Malick si bàyyi na fi ñeenti doom yu góor kenn ku ne mat nga xalifa ci tariqa bi waaye fal yuqaddimoo bi man yusamma bi Abubakrin si wa illaa takun fitnatun Cheikh Tidiane ne na Babacar si jiitu ñëpp topp ci ginnaawam bu loolu amul musiba am Sayid Sukkayri ji moo ko bind na Cheikh Tidiane moo ko feeñu wax ko xanaa loolu leer la mag ñëpp waaw xale bu am 37 ans ñii am 70 ans ñii am 80 ans ñii 92 ans te ñii ñoo la mag ñii di sa rakki baay ñii tab bu dee téere rawoo leen sëñ Seybatu Fall nee na bu fekkee lu ñuy jàng ci téere rek kay tax nit di topp nit du ma topp Babacar lu ko baayam jàngal sama nijaay jàngal na ma ko waaye bu ma koy topp leneen la leneen loola nag mooy yëf ya déggu leen ma de mooy la ca gannaaw téere la Maodo waxoon bu fekkoon téere bu ñuy jàng rek wala dog bu ñuy jàng wala mokkal alxuraan man say bëtu faal du ma topp ci ginnaaw kenn waaye tey nangu naa topp ci ginnaaw Cheikh Seydi Aboubacar si ak i rakkam ndax la tax may topp ci ñoom leneen na leneen loola nag mooy leneen la mooy leneen rek ba far di leneen di leneen nii rek <laughs> déggu leen ma de wallaay ku foog na ñëpp yem dangay ngay nax sa bopp ñëpp bu ñëpp yemoon am ñu sëg dëgg ñëpp gedd seen seen yéen a ko de maam xalifa ababacar si radiya mawdo ne sa taarifuuna hoo min baadi su ma génnee àdduna ci sama ginnaaw ngeen koy xamee maam abdou nee na keroog mu ngi fekk sëñ babacar si mu ngi sol garamb bu baxa yor benn kaala palma palmaan mu jëkk kaal gi takk ko ñi di ndiggam di waaxu as bi mu am moo choisir ñi takk ñiy sang sëñ babacar si as bi mu am moo choisir kan mooy jullee sëñ babacar démb nit laaj na ma ko sëriñ bi bis bu ne nit laaj ma woo ma di ma ci Maodo keroog bi ñu taxawalee sàppe yi sëñ babacar dana attention du première sàppe comme neex taxaw première sàppe ku fi taxaw te joxuma la ndig ndigal bu Maodo demee nga topp ko lii la wax ñëpp taxaw paa yëpp di xoolante mu ne diw taxawal ne yow taxawal ne eh yow nale yow demal nale classé première deuxième troisième quatrième cinquième mu ne ba ci ginnaaw fu waaye taxaw baax na waaye cinq yi koy tiim ku ma joxul ndigal bu Maodo demee nga topp gars yi ne ah mais gos bi garaaw naa ah. waaye ñëpp arrière de te ñoo ko mag de kam min kabirin yura wal ilmu kaba wal jahlu saqarahu waaye kam min saxirin yura wal ilmu kabarahu léeg-léeg nga romb xare boo xam ne majeuragul bu jëfee rek sa xel dem ci mag gi waaye léeg-léeg ngir lan ngir xam xam baak yar ba waaye léeg-léeg nga fekk mag mu bejjaaw bu jëfee ngay bëgg a wàcc xale yi sax a ko parce que yar baa baaxul te sunu maam alaaji maali nee na man alaaji maali munumaa yar ku bëgg ku la ku la sa doom bu ko indi bu ñëwee du yar du yaru man munumaa yar Tiwaawan kenn du fa yaroo lu tax mu ne nit ku yaru mooy xam lam moom mu teg ko fa lu keneen mu téye ko li keneen moom mu bàyyee ko waaye li mu moom ku ko ci def lu ko naqadi ñu dégg leen te loolu tubaaba ko moom man maa li fawaat du ma yar looy def mu ne damay defar nit ku defaru nu muy mel mu ne loo am mu bàyyee la ko lu mu am bis bu ne mu géeg ci lu ko naqadi te kenn du ko dégg gor pire mooy am lu ko naqadi te kenn du ko xam Serigne Cheikh Tidiane si nee na ñu ngi ci jamono boo xam ne kuy def lu la nga jàmbat ko koo dëkk rey koo jàmbat ndax ku xëy gisul la naqadi gore rek a fi des loolu nag ku def defaroo ko man ñu ne ko maaw nit ko defaroon nuñ koy xamee Maodo mu ne mooy ku fanaan ci lal yeew ki tëdd fa dëkkul ci néeg bi ñëw di defar lal bi xàmmewul fi mu tëdd ak fi tëddul waaye fanaan ci lal mëlëñ mëlëñ mëlëñ këlëng lëng lëng këpp xëëx xuux ba bët set bu ñuy lal lal bi dinañ ci def juróom benn fukki minute mbaa lal ba du lalu ku réew fi fanaan waaye loolu yéemewul loolu yéemewul de sa taarifuunahu e, doon xalifa Cheikh Tidiane xutbu lay doon ci jamono xutbu bu nekk ñaari abdal ñoo wër abdal bu ne ñaari maftuxale ñoo koy wër dégguloo ma de kii doontu mooy nekk xutbu zaman xutbu bu ne ñaari abdal abdal gauche abdal droite xutbu bii day am benn maftuxale gauche benn maftuxale droite ci xut xit kii ba war a jóg balaa ren di déwén wala juróom-ñaareer day jóg siis bi toog may ki waroon a toog ci ndeyjoor mu ñëw toog ki nekkoon mooy ñëw toogaan ndeyjoor ñu jël kenn ci mafto ali mu remplace ki war a dem ruuxam war a jóg mu jóg taxaw di xaar moo tax siisu xutbaaniya utbaan siisu xutbaaniyatul osma du moso a vide dooma laaj jamono mu ñaata wëli am cent vingt cent vingt quatre mille wëli yi ñooy am doomu aadama boo gis cent vingt quatre mille trous moo ne ci moom demande am boo gis 124000 karaw moo nekk ci moom Seydina Cheikh bi muy génn àdduna 124000 taalibe la fi bàyyi ñii di wëlli ñii di ñii di jinne ñii di nit rasulullah bàyyi fi 124000 sahaba ñii di ay nit ñii di ay jinne xutbaaniyatul osma bi ki fii toog mooy coiffé ñëpp moom la sëñ Babacar si doon noonu moo tax mu ne maay wax ak ñi ci suuf di wax ak ñi ci kaw looloo tax bi mag ñi ne ku koy doon mu ne tardé ngeen Maodo dafa wàcc siège bi toog taxaw ma toog ci pendant sept ans ki war a jël xutbaane bi mooy jógee dama ne la xutbaane bi ñi lay toog kii toog fii ab dàll kii toog fii ab dàll ki ci toog bu a génn àdduna day jóg taxaw ki nekk ndeyjoor mooy ñëw toog ci ki nekk càmm mooy ñëw toog ki toogoon fii ñu jël kenn ci maftoo àll yi mu ñëw toogaat fii ñu xëccaat beneen koo xam ne bokk na ci martabatu siddiqiina nommé ko garaatu maftoo àll yi mu ñëw remplacer ñooñu ñooy ñooy coiffé moo tax boo demee ci hadratu ilahiya di laajte Mouhamad xamuñu ko boo laajtee Cheikh Tidiane xamuñu ko boo laajtee Alaaji Maalik xamuñu ko xam nga yonent bi nu mu tudd ci hadratul ilah sayidul wakki sayidul hadrati Cheikhu Tidiane ma ngi fa tudd wakilul hadrati Seydi Hadji Malick tudd fa sayidul qawmi déggoo ma de sayidul hadrati mooy sangu hadara bi Sërif Yunus sa ca bangeer ca hadara ba la xamee Maodo Malick si nee na ahlul bu ñu toogee yonent bu toogee ku dugg si duñ toog ma gis genn góor bu dugg si ñëpp taxaw ma ne kii kan la ñu ne kii mooy Cheikhul Qawmi mooy alaaji Malick Si alxawmu fukk la ñuy doon fukk yooyu ñooy dar yonent bi xawmu yooyu day am ku leen di coiffé kookaay Seydi Alaaji Malick Si mooy seexul xaw mi kookoo fi jógee nag sëñ Babacar Si remplacé moo tax affaire yi du fii ca kaw la moo tax ñu ne ku yaakaar na kaala gu dong la ak mbub mu rëy mooy tax nga mel ni cheikhul xalifa baba si nax nga sa bopp mbir yi leneen la yàlla nañu yàlla boole ci njabootam maa ngi bëgg a waxtaan minute ci jox sëriñ bi mu ñaan guddi na jotaay bi yàgg na wolof nee na jikko jikko mooy li nga li nga ji boo ko jiwul du sax eh bu la nit ëppee alal bàyyee ko bu la nit ëppee daraja bàyyee ko ko bu la nit ëppee wilaaya bàyyee ko ku la gën jikko bàyyi ko xel bu yomal xiyaamee moo la gën tamit première di ñu xamee nit ku am jikko mooy ku doylu ñaareelu borom jikko ju rafet mooy koo xam ne lu la wax dëgg la ñetteelu borom jikko ji rafet mooy ko xam ne loo ko déy du seen ñeenteelu borom jikko ji rafet mooy ko woyofal boppam ba kum dajal jàpp ne moo ko gën sëñ alaaj sëyda sëyda sëyda jabdat da baax nee na sëriñ Babacar si dafay jógee di bu zamaan alaaji Mansour jógee fi fees dell ak yàlla ma ñëw toog ci siis bi mu wóor ma ne daraja ju ma jaay du saf ma songu istiqaama fekk mu fees dell ma songu buntu hidayatu fekk mu fees dell ma songu buntul juudu fekk mu fees dell ma ñëw ci bunt bi ñu tuddee wàccee sa bopp fekk ma ca kenn man da baax Malick ci laa boof ba lu ma am wàccee sama bopp moo ma ko may yàlla ne rasulullahi ne man tawaada arufia ku wàccee sa bopp yàlla yëkkati la nit ki ci cee dit mooy nit ku wàccee boppam te yëgul benn ceer ci boppam sayiduna ibrahima boo jàngee alquran yàlla dane wattaqasallahu ibrahima qalila alquran dane benn xarit laa am alquran yonent nee na yàlla ne na benn xarit laa am daawuda jëkk mu ne ko yow Souleymane jóg mu ko yow Aïssa jóg mu ko du yow de noox jóg mu ne ko du yow de Seydina Mohamed jóg mu ne ko yow sama soppe nga du yow Seydina Ibrahima jog mu ne ko yaay sama xarit wa taqasallaahu Ibrahima xalila ñu ne Ibrahima bi ma taqasallaahu xalilan loo defal yàlla ba muy sab xarit mu ne yàlla nee na damaa fonk gan tey teral gan mën a joxe ñam kuy tere gan kuy teral gan xaritub yàlla ngay doon te sama kër mosuma fanaan te fanaan wuma gan ñu ne wa min makaarimil axlaaqi ikraamu dayfi bokk na ci tedd ngay jikko ko mën a teral gan waaye ñàkk mën a teral gan li muy bon bon ci jigéen la yées jigéen bu mënta teral gan rek kër xat yëgaloo ne xat ji kër jigéen a tax góor du dara ci kër xam nga lu la koy xamal mooy jënd kër gi mooy tabax kër gi mooy jënd frigo bi waaye bu maree ndox bu ñaanul ndox du naan <laughs> jigéen ñi ñoo foor ñii <laughs> da ngay gis may ma ndox waaye eh, doo may ndox ma naan buñ la mayul da toog na tócc rek te yaa jënd lépp waaye buñ la dañ lépp dañ la koy may sa waay may ma añ waay yow toogal ñu lay may rek moo tax ma ne ñii pare nañ pour dem marché ñii pare nañ pour waas jën pare nañ pour raxas bool pare nañu pour lal napp pare nañu pour yàq pare nañ pour xelli dox mu sedd ñii pare nañ pour raxasu pare nañu pour dank pare nañu pour seex pare nañu pour sàqami pare nañ pour wan pare nañ te naan neex yéen lii ñii lii yéen yéen rek kenn du yéen ikraamu tey fi teral gan ma ne kër balaa neex jigéen keroog ba waa Màkke wax naa ko ci ginnaaw waa Màkke ne rasulillahi bëggul Xadija da koy na Xadija dafa woo benn jaam ne ko recensel ma lu ma am ci alal jaam bi naan ko am nga nangami téeméeri gëlëm am nga nangami téeméeri junniy bay am nga nangami téeméeri junniy xar am nga nangami jun téeméeri titre foncier mu ñëw fekk waa Màkka yeey wax ne sang bi salaay salaam day nax Xadija Xadija ne jaam bi limal ma jaam bi di lim ba mu jeex mu ne ku moom lii mu ne man mu ne wa kullu zalik wa nafsi hadiyatan li rasulillahi lépp def naa ko hadiya yonent bi ak sama bopp comme naqadi deyal kii moo ma ko jaral moo tax jigéen bu góorgóorloo rek am lu baax comme jigéen ñi saraxatuñ man ak sëriñ bi ma wax si jigéen pour ñu bàyyi ci seen xel man ko yóbbuwaale jigéen bariwul sikk moo góor a yemle ku ne fukk la waxoon naa fukki góor ma ñëw ci fukki jigéen ba nga leen seen baaraam réew siis taayal bañ gan bañ gan bëgg nelaw salte tànk bu gaaw mën a tontu tëlee togg ñaaw njort laaj ma bu ci yées mooy jigéen ju salte koo xam ne bu yëkkatee poq taare mu <laughs> ne ni yaay ba ma nag saa marinière bii démb rek laa xëppoo ndox boo ko sorul da lay rey bunnu lay def du day jàngu sangu de day xëppoo rek waaye yéen bokk leen ci macha allah civilisé ngeen baax ngeen yàlla neen yàlla fay seen jotaay bi rafet na yëguloo ne maam laaj téere yi nee nañ ñu ngi dugg aljanna bisu àjjuma ñu ngi ubbi buntu aljanna bu taalibe tijaani di wird ba toll ci allah allah xadatul juma bu jotee eur bi ñuy wax allah lañ naan kàccet buntu aljanna yi daawuda mi mooy njëkk yonti turandoob aljanna sëñ Alioune Sall ak mbooloom dañuy dugg ba fàtte Souleymane ne ca mboolooma ca ginnaaw ca naaj wa yonti yàlla Souleymane yow noo tudd Pape Diagne day dugg ba fàtte Youssouf ak mbooloom taxaw ca naaj ba xeetu yonent bi njëkk dugg ba jeex tàkk xeetu yonent bi jigéen ñee njëkk a dugg ajjuma la ñuy dugg bu ñu aadatul juma la ñuy dugg balaa timis a jot ñu tëj bunt yi bu góor ñi jeexee timis jot ñu tëj bàyyi jigéen ñi kon jigéen ñay dugg ba timis ñu tëj renvoyé ba beneen ajjuma su ne sëriñ bi nga baal ma li ngay baax wax sama yaay njëkk dina dugg ba fàtt di nga gis borom kër gu naan waaw seenu leen foofu faatu waaw Fatou ne ko maa ngi fii ci tim na dikk na ñëw ne ko non Fatou ba Fatou wax ko ci dooma lu tax sëy naa liin mooy joxe tikke yi dinaa la wax lu tax muy joxe tikke yi nee na jigéen ñi laay jox bañ jeex ma doog a jox góor ñi lu tax mu ne yonent bi nee na ñett ji ko comme ne ci yow yaa war a njëkk sa morom aljana te ñetti yëpp ci jigéen ñi la ne ku la dàq joxe ñam moo la njëkk aljanna kuy togg kuy yekk kuy séddale kuy njëkk a góor ñaareel bi ban la mu ne ku la gën a sonn ci xale dàq laa toppatoo xale moo lay njëkk aljanna ndax xale yi ëmbub yàlla ëllëg kuy nàmpal kuy sang kuy kuus kuy boot kuy yeetal kuy yóbbu hôpital yow nga toog rek na buq rek te yaa ko tuddee ku la neex mu yor saw sant boo dee mu doon la danal sa kër moom mu gental kër baayam ngir dundal sa kër jigéen a gore ñetteel bi bal la yaa rasulallahi mu ne ku la gën a nooy xol gën laa yomba jooy moo lay njëkk aljanna jigéen ñi seen xol yi daa góor ñi seen xol yi wow balaa nga koo xam nit de ñu jigéen na ñu naan noppi leen waaye yéen lii du dara mu ñal ñaanal ko rek balaa ngaa xam ne ñoo añaan nga dem sëgee bu ñuy suul jëlal ca la bokk bëpp di rokkas seen bët yi xonq cooy jigéen ñi naan noppi leen waay ils sont méchants dañoo soxor rasulullah ne bu ëllëgee ku la gën a nooy xol gën laa yomba jooy moo leen jëkkaal jël maa ngi lay wax lu ko may Seydina foofu lay tëjee jox sëriñ bi mu ñaan doo ma laaj lu ko may Seydina Aliin Seydina Aliin radiyallahu taala anhu wa karamallahu yàlla da koo nattu woon mu ñàkk téere yi nee ñu daan na toog 6 mois sëriñ bi balde du am 100 francs biir bi dafa rëyoon ba buy dox ci kanamam ñetti mètre du gis kanamam diggante mbagg mi ak mbagg mi ñaari mètre a génn wàll muy jàmbaar joo xam ne maam Alaaji Maalik neen yàkkul rukkur wala lay sa akrim bi ay darin yu xasimu anaqal idaawa eesu bu daan xeex nii lay def day dër du arrière de gars yi daw mu leen di song yu xasimu an fi mu taxaw dañ koy monteel bëtu ñaari boot ci gauche ci droite ñaar ci gauche ñaar ci ginnaaw ñaar ci kanam du gis ki mu jàkkaar la mu ngi koy gis boo koy ñëw nii la de raay teel rës teel fi mu taxaw ras tel teel gaa yi xalam moo dana yàq ko sama aanaxale daawa yeesu fi mu taxaw du buuse eh, bi biñ daan xeex keroog bi ñu demee Badar dana saxaaba yi fu métti séddoo leen fu yomb bàyyee leen ma keroog bi Badar jeexee yonent bi da yàlla da ko ne wa ma ramayta is ramayta walakin allaha ramee yëguloo ne téeméeri yéeféer yu daanu juróom-ñeent fukki malaaka yee leen daaneel mu ne ko nu ñuy xàmmee malaaka comme daaneel mun ne ko du takk deret du pënd day tëdd rek sedd guy mu ne ko waaye fukki yi ci des jullit yéeféer jullit yee leen fukki yu nekk siis yi yu na leen rey kaat yi la gaa yi séddoo ndax njàmbaaram daf ko fekk mu wànnent ñëwul ci xeex bi Seydina Muhammad ne bu Ali ñëwul musiba am ñu ñëw ne ko góor gi nee na soo ñëwul musiba am mu ne soxna si dëbbal ma kaani mu ne bu kaani mu ne ko tay tay deret ji sànni mu ne na fi bëri jógee yàqu mbaa mu xool nabi bi du jaaxle ma toog ci kër gi bu may dugg balaa minute ma régler problème waaye yàlla nattu ko nag xam nga lu doon sansam yonente ne ne adduniya kulluha mata on fa xayru mataayiha almaratu saaliha adduna loo fi gis matériel la sama montre bi matériel la sama mbub mi matériel ba sama jëmb ji sax matériel la dafay dugg ci suuf si yax saxi lekk ko waaye yonent bi nee na matériel bi fi gën mooy jabar ju baax góor ku ko yàlla defal deseletul la dara jigéen ju baax a baax ku ko am santal yàlla mooy àdduna mooy àllaaxira ak a baax jigéen ju baax a baax yàlla na leen ko yàlla may yonent mu ne góor gu la raw ci jabar ju baax la la rawee ku la gën a nekk ci jafe-jafe ci jabar ju bon la la rawee yàlla may ko jabar ju baax jigéen ñi Fatimatu Bintu moo am garaat yi may bëgg a wax bank leen seen baaraam Fatima mos a óbbali du léeg-léeg nga gis benn xale bu jigéen nopp ko naan ko bébé bébé dafa rafet dafa mignon dafa son sonwul daa puudaru billahi bu yeewoo laa si takk ko mu ëbbali ba gémmiñ gi niroo kanaal bi ci tëngeej ñu foto ko danga naan du bébé bébé la daa defaru woon bari na ku lay daa defaru moytu leen sinap yi ngeen sinap yii baax na léeg nga topp jigéen boo gisee da nga noodu moom fekk mooma dafa sinap xale jigéen yi kenn fotootul sinap rek ma ñëw yàlla dogal si naalin karamalaa wajoo amul ñaar dërëm waaye fatimatu bintu mooy caatu nabi xam ngeen lu tax mu am garaat yi mu am keroog ba ñu recevoir rasulullah ci aljanna benn pom lañ ko fa jox mu lekk ko pom booba la ànd ak yaay xadijatu Fatima juddu ca di leer moo tax mu jógee aljanna Fatima bu tuuree ndox parfon lay doon Fatima bu demee ginnaaw parfon lay xeeñ Fatima du gis règle bu amee doom dara du ko takk du gis meret Fatima weñ du ko biiw Fatima yoo du ko matt Fatima amul taflit Fatima amul baqata Fatima amul yuut fa yuut Fatima bu jooyee ronkañ yay toq parfum lay doon bu ñaqee parfum lay doon ndax lépp ma seetlu moo tax ñu tuddee ko az-zahra'u mooy ki seet wecc wal batuulu ak ci dagg ci lépp lu tax xoolal sëñ Maam Alaaji Maalik kenn du moom maam Maodo si léeg-léeg borom kër yi toog ci kaw nga jur doom ba mu sëyi ñu laaj la eh sa doom ji sëyi nga maye ko góor gi ko njëkk a intercepté ci mbedd mi ne ko nopp naa ko mu ne la xaw ma ko Maodo ne ki njëkk a wax ne nopp naa Fatima xam naa ko man Malick Fa Wade baayu Babacar Si nabi soxna sum am xam naa ko bu ko takkee ci njànk xam naa ko bu ko takkee ci jeex xam naa ko soxna su ne lam ko canee xam naa ko soxna su ne ko ko ko may xam naa ko ñi ko ténji xam naa ñim jiital man Malick Fa Wade xam naa ko tukki bu mu mës a tukki xam naa ko ba muy dem kum àndal xam naa dëkk ba mu jëmoon xam naa la muy doxi xam naa kum dajeel xam naa ku ko romb xam naa kum taseel ci yoone man Malick Fa xam naa ko rasulullah alayhi salaatu salaam doom bu ma am xam naa kuy góor xam naa kuy jigéen xam naa doom bu jigéen bu ne kuñ ko may xam naa ko doom bu jigéen ñi ko jiitu barsaq man Malick Fawad xam naa ko rasulillahi ñaata bàjjan la am xam naa ko ñu ne Maodo xamoo ko mu ne ko arwa umaymata baydaun wa atikatun safiyatun amatu badru tami ñu ne Maodo Malick si rasulillahi ñi bokk ak baayam ndey ak baay xamoo leen mu ne xam naa leen wa abdu kaabata jaat minu abdu manaafi ma subayri wa abdullahi xayrihimi xare bu mu mos a xare xam naa ko bu gañee xam naa buñ ko gagné xamna bu roccé jassim xare xamna ñaata fas la am xamna ñaata jaaro la am xamna ñaata setu la am xamna ñaata puso la am rasulullaay xamna naa ko ban njàppaytu ñam la rasulullaay gënonu bëgg man malik fawad xamna ko lepp rasul koko laaj day gat ñëwal Tiwaawan borom palasool bi baye Babacar si mu ku ñëk bëgg Fatima xamoo mu ne xamna ko ñu ne Maodo bi mu ne annal batuula bi wayin kana sawaja خير الورى ثم عاد فارس البوم من بعد ما رد صديقا كذا عمر وليس ما هذا الا الدرع من نعم كان بشيء والحاج مالك طيب، مالي ودو طيب، سيرن بي سما ما يواجه ماما لاج مالي مني سيدنا عمر بن الخطاب مو نك بغ رسول الله تجلنا دوما ماي كو رسول الله دوم بيم كو ماي كان لا kan فات mu رسول الله عائشه بين كو ماي رسول الله خمو نياتات xamoo خمنا mu لنج xam naa kañ lañ fan lañ ko ko jébbalee xamoko ko ko biñ ko ko mayé ñaata at la dund ak mom faatu xamoko ko bi mu génnee àdduna ñaata at la fi fa Aïcha def xamoko ko xam naa ko ku ko jullee xamoo mu ne xam ko ñu ne mawta bindal mu ne wa bintu sittan hawal muxtaaru Aïchatan min qabl ijrati jiman fala taghimi fi taybatin ama ida kana mubtaliyan bi ala asatul amami faltasumi wa xaaba an ala hayy bi abi hadin tuwafiyat umruhu isaka fi akami bay sama may nga aja waay man na bari way bu demé ci téré ko na xam ko la man may na ko Fatimatu bintu ñaan ko Fatima mu bañ may na ko Aïcha moom Aboubacar bokk ci ñi ko ngëkkagam nekk directeur campagne am lu mu moto woose moo ci man mu ñëw ne bëgg naa Fatima nabi bañ ku ca tegu mu ne Omar Fatou Farouk danaay wax ne rasulilahi kër gi mu seere seere ko yombul maam Khalifa yaa ngi may dégg kër yonent bi góor dëgg ko yor téye leen ko rek ma daaneel jox sëñ maa ngi daaneel de ban heure a jot ban heure minuit minuit banaa déedéet bu ma demee duñ ma xool te damaa bëgg su ma wax ñu may xool di ma déglu may leen ko ndox mu sedd waa léegi xool leen ma léegi nag xool leen ma ma continue eh Fatima Seydina Ali lañ ko may moo tax fuñ ko ko maye mu ne bi wax yin kaana zawaja jërëjëf baay booy yal na yàlla fay jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf amin amin amin jërëjëf jërëjëf e xoolal xoolal Seydina Muhammad Babacar daa ñëw bëgg ko mu bañ Muhammad bëgg ko mu bañ xam nga lu tax xutbaaniye bi ma doon waxtaane ginnaaw yonent bi wëlli wël yonent du am xutbu samaaney am te Fatima ko nar a doon te ku ko denc ci góor yàlla yi bu Fatima faatoo yaay nekk xutbu zamaan nabi bëggul mu génn kër baayam ndax gir ba na Asim la ko yéene Abu Talib Abdou Manaf la tudd moo jur Aliin ra Abdoulaye moo jur Rasulaay Abdou Mutalib leen jur ñu bokk ndey ak baay mu bëgg confisqué ko mu des kër baayam moo tax mu rejeté ñaari saaba yee may ko rakkam boobu seen ñaari baay bokk ndey ak baay parce que xutbaane bi lay bañ mu génn parce que ku takk Fatima gannaaw Fatima yaay nekk xutbu zamaan te Fatima nabi da ko woo mu ñëw mu déy ko ma commencé jooy mu deeyaat ko muy ree ñu ne ko même jamono sa baay déey la nga ree mu deeyaat la ngay jooy mu ne sama baay damaa déey na ma trois mois moo ma dese damay dem ma jooy di daagu ci kaw suuf suuf ba rasulullah nekkul moo ma jooyloo mun ma doom bul jooy six mois laa lay rawee nga fekk ma aljana ñu bokk yi noos ba gaa yi fekk ñu fa ñu dugal leen maree ndax fu mu ne damaa bëgg a dëkk ak moom kon six mois la def ginnaaw rasulillah bi may ko Seydina naa nee naa la amul ñaar dërëm te xale yi jigéen ñi balaa ñu laa nopp lu leer day sérieux de sinon <laughs> lu sérieux lay doon baa duñ la nopp yéen xam ngeen li may wa laay laay boo ñëwee sa jiin bu furi sa seen yaay ñoo la na la kii a kii <laughs> ah yaa tuuti bët doom ah, yow li yow yaboo sax yow yow wala ba sa papa ñëw bu soobee yàlla du doo jaar maire bu ñu la fasalee rek te foo fekk doxaankat day soof man a maslaa man a wokkati <laughs> jaaroon rek jaaroo fi ci biti waxoo dëgg célibataire yi ñu may ko Seydina Aliou yoru ñaar dërëm dooma laaj ko ko maye nabi am na benn tool ca Xaybar di dem tàkkusaan ànd ak Seydina Aliou dem ba mu yàgg mu ne gees na Aliou mu ne amagoo soxna mu ne déet jigéen ñi ma yeggale amagoo soxna mu ne déedéet xanaa bëggoo soxna mu ne ahan kay koo bëgg mu ne man kay koo wax rek bëggoo Fatima ma may la ko mu ne ma ne ko nga ni bëggoo Fatima ma may la ko <laughs> dëgg yàlla <laughs> nabi na ko bu subaa rasulullah ñu dajee ci jàkk ji ma may la ko Seydina naa nee na bi mu ma ko waxee damaa tiit ba deeteelu guddi gi wàccee naa ñetti kaamil junni yaasin xam nga lu ma ciy ñaan yaasin bu jeex yàlla bu bët set nabi naan ma c'est-à-dire dama doon kii wax na dëgg jabar ju baax jaar na ko de lu mu xam jàng naa ko jërëjëf yàlla na yàlla fay la ñu may ko ko ñu ñëw sëyi seen kër bu fekkee miin nga Tiwaawan zawiya Seex Seydi Hadji Maalik Si radiyallaahu taala anu wala ma wax la sëwee sëñ Babacar si radiyallahu taala anu mu lotissement wu nabi bi mu ñëwee Médine bi mu tabaxee jàkka ji fi kër sëñ Babacar si ne jàkkaarloog jàkka ji tey moo doon kër rasulillah ci côté droite bi mooy foofu ñu tabax salle bu njëkk ba sëñ Abdou doon tabax foofu moo doon kër Seydina Aboubacar Sadiq fi margo bi ne à te sëñ Moustapha bu sëñ Abdou ne fa foofoon kër Seydina Omar ibn ci kanamu jàkka ji mooy fi réception bu bees bi Macky Sall tabax foofay ay kër Seydina Ousmane booy dugg Tiwaawan ci ODCAV ba mu ñaan fa pàkk ñu may ko ko mu tabaxal ko Seydina Alioune mu sori ko ñu ne ko tax mu ne ndaw la dama koy tarbi bu ma ko soxlaa jéego yi muy seq di ma fekk ci lay yéegee te dama ko may ki ma gënal ci jigéen ñi moom muy góor gi ma gënal ci góor ñi te ñaari jigéen ñi góor ak jigéen bu ñuy dogo sëy amaguñu expérience su sëy xuloo mën te ñàkk te bu kii tooñee ma faral kii yàlla laaj ma ko bu kee tooñee ma faral kii yàlla laaj ma ko ma sori leen bëggante buñ xuloo dinañ juboo te kenn du fekkee ma bañ caa dugg moo tax foo fekk ñaari couple yu teeyal teeyal de aha boo ca waxee far billaay da ngay génn mu ne ko nijaay kii daa soof man lii wax loowu ma ko ko yow yaa ko woo sax génn ci lu ñu wax rek ne la moom kay dëgg la <laughs> kay xanaa ngeen muñ rek moo gën de rasulullah ne ko bu subaa dinaa la may Fatima ñu may ko ko mu dem sëyeeg moom benn at ñaari at ñetti at ñeenti at ñu xëy añuñu reeruñu ndekkiwuñu mbaa ñu may dégg deuxième jour añuñ reeru ndekkiwuñ troisième jour añuñ reeru ndekkiwuñ quatrième jour añuñ reeru ndekkiwuñ rasul na ali ali na ali na fatima mu naa mu ne ko xale yi dinañ dee xiif de xasan da dem kër maamam lu mu fa jëlee ci addiye andi ñu togg ko te ngoo bàyyi mu dem mu ne ko sama baay bi ma lay may ay boroomu million la dàq may ma la xamoon na ne lii laa fii fekk nañ toog muñ ko bu yàlla ñëwee ñu lekk bu yàlla ñëwul ku dee benn yoon du ñaar ñu muñ ko waaye du ma sama sagu jëkkër ji jigen a na sey bu don jigen léegi dépense joxe woo day ñëw nel nijaay mu ngi nadd de yo gal man man kafuma ni ay doga te jigen ñi bu ñu bëggee histoire ci ñett nga koy xamé bu ñu xëyee di musoro tak ben nobi ba ben tagowal demal doxi soxla boko deful di nga xulo mbaa ñu xëy xale bu ko rom mu ne ko dir moy tamati ay yow lay cokkaas tàggoowal mbaa muy ñëw di wax yow naan ni tànk ba <laughs> génnal boo tàggoowul kër gi du neex waaye Sayyidatuna Fatima pendant quatre jours añuñu reeruñ ndékkiwuñ kenn xamu ko rasulilaay toog ba mu yàgg mu ne sama waa kër ga gën naa leen a gis bàyyil ma dem siyaare ji leen ba xam lu ñu ne jërëjëf sëriñ bi yàlla na yàlla fay ñëw ba ci buntu bi asalaamaaleykum yaa ala bayti rasulillah ñu ne ko waaleykum salaam yaa xayra xalqillah tafaddal maskura nabi dugg si ne ana xale yi ñu ne ñu ngi tëdd leen dal ñu ne dañoo xiif lu tax amuñ luñ lekk lu tax ñëwuñ kër ga seen naa leen daw res na ko du sa doomam moo ne bu kenn génn kër gi ndax day bañ sax mu ne ko Aline maag yow jàkka ji tisubaa tàkkusaan timis ta waxoo ma ko mu ne ko Fatima ne du la ko wax nabi làmb poosam fekk ci juróom-ñaari dërëm mu naa am jox sa sox sa kër sa soxna gaaw mu dem marché balaa xale yee sonn déggal bu doon góoru may waaye mu ngi bañ xale ndaw seen yëpp jëkkëram mu may jëkkër ji soo ko mayee boo légee daan la fii nga amoo a ñu dee wala la am gaawal dem marché yow kay dee nga waaye dana sëy naa am jox sa jabar maa la ko may mu dem marché na bee mën a société soxna si dugg ci biir néeg bi di solu pour dem marché Seydina Alioune yàkkamti ne ko indi marché indi daaw ma dam duggi marché maa ngi lay wax ñaari secret góor buy dox ci mbedd romb luy dem ci cin kaani xuliñe ñebbe pataas ñambi mu jand ko jox ko soxnaam mu togg ko ñu waa kër gi lekk ko ba ba muy dee dootul wati dépense góor gu am woye fu togg lu ñuy def ci cin jox ko sa soxna bu ko toggee ñu lekk ko dootoo wari dépense ñaareel ba mooy góor gu tukki indi yoo sëri ca jox ko sa njaboot ñu lekk ko mbégte boobu da ngay gudd fan ba da nga fekkee seen njëriñ waaye tukki ñëw indi woo dara papa ñëw na papa nga ne ma bay bul xotti sama boobu damaa sowaay tëble boo moytu suba ca midi ngay dee ma ñëw sallallahu alayhi wa sallama ne Seydina Alioune am daw marché xoola Seydina Alioune juróom-ñaar dërëm ma ngay waaxu de dem marché ñëw ba ci bunt marché bi mu dajeeg benn xale Eh, eh, jànq jógal taxaw jógal jógal taxaw seen ngeen xale bi seen ngeen xale bu tol nii bu góor toogal day seen naa leen na ko papa dama may juróom-ñaar wala déggu a lin na ko booy nga ni <laughs> na ko papa ma ne dama may juróom-ñaar dërëm marché bi bari nay nit ñent nit la fi gis ñi dug ak ñi genn ak ñi jënd ak ñi jaay ñaanuma kenn yalla ma xamal ne sa poste bi amna juroom juróom-ñaar dërëm papa bu tax sama yaaka mu ne rew ay man ak bi goos ki li mo wax dañ ko yebal ci man suma ko ko joxe nak suma demé kër ga yëngu jëf te góoru ben jabar nak kay mo wax ñaari sik rek la am ben sik bi moy lum la wax wóorul la jabar ja waxa a ñaareel ba mooy xuloo boo fekk mu sooke ku ci ëtt bi teyal buy juboo doo ko fekk fay leen lamp yi eh, buy dugg na ko be <laughs> kay ne de tey ca tey ca de ali góoru benn jabar laa aw ma dépense ñeenti fan sama goro may ma xaalis bu ma jaayee mbaax maye ko su ma demee sëy sama sëy tas mbaa mu yëngu te kii li ma wax bu ma ko ko joxul yàlla laaj ma ko na jaayante na ak yàlla na xale bi am xale bi na mes am na benn xeer wu nekk ci wetu Médine ci bunt marché bi si naa leen toog dar benn waay bu mel ni Aline mi fekk ko fa ne ko góor gi dañoo ma jaay la gëlëm moo ko noo jënd ma góor gi gëlëm gi seerul de booy janduma ma dañoo ma lebal la ko booy yow xanaa laajte woo ma jëndu ma bu ma indil booy sori ma waay ne ko góor gi gëlëm gi na ma la koy lebalee neex na ma ne bëggu mu ne juróom-ñaari ti fukki at laa la koy lebal juróom-ñaar fukki dërëm laa la koy lebalee loo am dugal fii ba fukki at bu fukki at yi matee te mataloo ma may la ko mu ne ah booy waxaata kaay jege si mu ne ko gëlëm gi fukki at laa la koy lebal loo am dugalal bu fukki at yi matee te dara loo dugaloo ko ma may la ko mu ne andi maa fi gën a ñàkk waaye gii gëlëm ñeme naa ko xam nga lu tax yonent bi daf ko ne Alioune sa ñàkk gi dafa ëpp Abu Ubayda ibnul Jarraax mu ngi bokk ci al ansaar ku bari wërsëg la bàyyil ma leb ko benn sob jox la ko nga commerce ji sa ñàkk gi ëpp na mu ne maa bañ damay bañ dem ca marché ba di jënd mbaa may jaay benn waaye doxee ma ginnaaw fontoo la kenn du ko faj ma dee yàlla di ma ko laaj bàyyil ma toog ci sa wet ku la fontoo ma duma yi jënd ak jaay ba yomal xëyam ñu xool kuy ëppale man rus naa jënd ak jaay yaay sama sama mission yow la yonent bi ne ko tey boo xam ne bu ëllëgee yomal xëyam fukki nit ñay njëkk a dugg aljana ca bokk mu ne ko loolu lan la mu ne ko jaamu yàlla goo defati tëjee ko subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Tidiane nekk ca salaala di jaamu yàlla Seydina Rasulullah fekk ko fa jox ko wirdu wi jox ko wasifa wi di dem ginnaaw mu ne ceef ca mbagg ma moom Seydina Cheikh ne ko sirru ba nga joxoon sama maam Seydina Aliin mu di ko tëjee wirdu ay jaamu yàlla damaa bëgg nga jox ma ko sama taalibe yi di ko tëjee seen wirdu ak seen wasifa ndax boo liggéey bëgguma sama taalibe yi dem aljana damaa bëgg ñu teele dem te bari ñu ñu baal ko nee leen ñu koy tëjee wirdu weeg wasifa yi moo tax bu tàkkusaan jotee bañ julli timi nga dégg subhaana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ يا رسول الله سيدنا علي لنكم موتا بو لغي يوم القيامه مام راج مالني طالب الشيخ دون جيكي سيرات جوازهم كلا كواهل الملائكه على الصراط منه لمالك اسرع من طرفه عين ان ذا لمغنم لكل بر زحتسا مدانه nit ñi nag sonn nañ fi mu ne noonu naa leen yëfu dof ba de dese naa juróom-ñetti waxtu de ñée ngi óbbale ñée ngi teen te géejawaay laa jëm de pare naa xisa bi laay daanee rek mu leb gëlëm ga gàddu gëlëm gi maa ngi ci Seydina Alioune de dox ba mu yàgg benn waaye kar ko góor gi doo ma jaay gëlëm gi moom mos sa jënd sa jaay lu muy fay mu ne ko loo fay loo fay ku koy wax mënoo jaay mu ne ko fay naa téeméeri dërëm ak juróom-ñaar fukk mu jox ko gëlëm gi jël téeméer ak juróom-ñaar fukk dugg ci marché bi ba doyal ki ko lebaloon gëlëm gi ñëw ne ko fay ma mu ne ko kañ nga ma lebal di ma fayee ko mu ne ko kañ laa la lebal nga am bénéfice téeméer ñëw ba jub buntu kër yónent buntu këram yónent bi ne ñokket jóg taxaw na ko Alioune mu ne mu ne ko ax bir bi ma fi suuxi am ax bartu ko wax ma la xew ca biir marché ba mbaa ma wax la ko xale bala ñaan juróomi dër juróom-ñaar dërëm du nit malaaka la yàllaa doon nattu sa pas-pas ci moom ki la ne kaay ma jaay kaay ma jaay la gëlëm gi kookaay Mikaayil luy wërsëg ci loxoom lay jaay ki la naan jaay na ko jaay ko ko jar ko ko mooy Azrail ka doon seede njaay moom mooy Israfil yàllaa doon nattu sa pas-pas bu ëllëgee yowmal xiyaam sa juróom-ñaar dërëm yi may naa la bu ëllëgee yow laay may tikke ñiy dugg aljana koo joxul du dugg ñun tamit bu ëllëgee bu ñu demee ca kanam yàlla yàlla naan ñu nii ñu ne ko amoon nañ sëtub alaaji Malick si boo xam ne soxna Safiyatu si ko juróon maam Sidi Ahmed jur ko bokkoon nañ benn takkusaan doon tagg sa sang ba rasulillah ak sa jàmm ba Cheikh Seydi Aboubacar si suñu ju tànt booba dugalal ñu ko ca suñu juróom-ñaar dërëm ya ñu àndoo dugg aljana ci ginnaaw sëriñ bi bi jaay rasulillah wa rahmatullahi ngeen baal ma jëfe waaye bu ñu dégloo imaam oustaz pa oustaz euh, sëñ Alioune Diagne wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla lafal cat waaye bu ñuy seet jikko yi sallallahu alayhi wa méngoo woon yoroon ko moom lañu indil yëpp fexe nag ba jikko yooyu mu génnewaat ko ci kër Cheikh Seydi Hadji Malick ak ci njabootam kon loolu lañ cay déggee ñun mooy jikko ju rafet rek moo jar wut moo jar a am waaye moo jar a dund mu xamit jamono ñu déglu bu baax a baax ci jamono bi léegi ni muy ni mu tëdde ak ni muy doxe waaye ànd ak loolu lépp kenn yàkkamtiwul kenn xoolul montre kenn xoolu portable kenn deful lenn lu dul rek di ko déglu te loolu mooy li nga xamante ni mooy li am njëriñ ci waxtaan yàlla subhaanahu wa bi mi wax sallallahu alayhi wa sallam ni que bégalal jaam ñi nga xam ne bu ñu déggee lañu dégg dañu jël la ca gën a rafet ñu jël ko jëfandikoo ko kon amuñ lenn luñ ci wara di wax ak jaam ni kàllaama gi nga bu ngeen di ñubbi du ngeen yóbbaale dara waande tey amul kenn ku fi toog ba ñibbi doo yóbbaale waxi sëñ Alioune Diagne bi de def ngeen lu baax moom mi ngeen tànn pour mu ne seen conférencier te it laata moo tàmbali nan xam nan ni ku xam li muy wax la ndax sëñ Alioune mii nga xam ni tey moom la ñaandal jóge jàmm lay wax na ko ñaari yoon ba ñetti yoon di ko tudd kon sëñ Alioune Diagne yàlla na la yàlla dolli jàmm waaye nag noonu dañoo jóge jàmm lay ànd ak sëñ Alioune Sall waa jàmm laay yaa ngi nii di ay notable yu dëkk jàmm laay mu ñëw ànd ak imam kuy dem nag yóbbaale notable yi yóbbaale imam yóbbaale jeunesse bi fa nga nekk fa nga jógee bàyyi nañ la xel sëñ Alioune ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant di wax lu baax ku baax ban ni ko baax nga dara mënatoo ko romb lu dul baax lu baax du baax ba weesu baax wante sëñ Alioune tubaarkal la yow tiitaroo woo ku la tag tiitaroo woo ku la sant li ngay tiitaroo mooy sa njaboot yi nga jaboote ku ci nekk fa nga bëgg mu xool fa di siraatal mustaqim ku ci nekk loolu ngay xool ci moom kon noonu waa Diamalaye am nañ chance ndax ñoo la am ni ñu la amee it bi nu àndee ak yow jóge fa ñëw fii ci yi Dalifort loolu lañ gis ci waa Dalifort kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaanal waa Dalifort lii yàlla na ngeen ko yàgg di def ci kanamam ak ñi muy àndal signal yun suñu maam say say euh, euh, euh, suñu maam dija di soxna Seydouna Mouhamed ànd bi ma am ak Seydouna Mouhamed mooy jàppale ko ba diina taxaw jàppale ko ba lislaam taxaw wane sa ànd ak soxna Seynabou Cissé yooyu tànk la taxawe soxna Seynabou jukkoy soxna Khadija rek nga yor ndax dañu wax ni daayira mu taxa bi na fi du daayira rek du benn du ñaar du ñett fédération la daayira mu taxa bi na fi yi aju ci sëñ Alioune yëpp ñoo fédéré di benn jël seen bopp takk jox sëñ Alioune mu téye wante bi mu geesoo yow rek la gis nga ànd moom jàppale ko taxaw ci njaboot gi wax nañ ko léegi nii waañ wa ca Tiwaawan moom nga indi jàmmalaay kenn xiiful kenn marul mënoo dox jàmmalaay ba dégg kenn ku yëkkati kàddu lu dul sëñ soxna Seyna boo baax sëñ Alioune léeg-léeg mu yëkkati kàddu di la gërëm ci mbooloo wande li tax mu lay gërëm ñëpp xam nañ ko mooy liggéey bii nga xam ni maamam lañ ko maamam moo ko ko bàyyee mu yore ko te fasul yéene benn yoon mu sooxe yaa ci jàpp kon yal na la yàlla bàyyeek njaboot gi yal na yàlla dolli la tawféex. yuqul huwa allahu ahad falaq ak naas. tëjee ko salatu ala nabi ñaan yalla ni jitu ñepp te nek ay jullit dëkkoon Dalifort ak di wër Dalifort ak mboolem julit ñom ñepp yalla yalla jéggal leen yërem leen bal leen dugul leen aljanna yene wala ci mag ñi nek ci Dalifort insha allah yene wala ci mag ñi nekk Dalifort muy mag yu goor yu jigen ni yalla samal ñu leen aral ñu leen laqal ñu leen fu yaq egul may leen gudd fan may leen wér ñu gungé ñu bañ bañ len di weer ak den leen ñaanal nak jeunesse bi yalla guddal sen fan lool inshallah Thank you.

الله